innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi wa fi riwayatin innama bu'istu mualliman wa radiyallahu an yàlla suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant suñu ñaari waajur di nuyu fépp fu waay mën a nekk jàkkaarloog TFM religion ci seen émission femme ak islaam ngeen ànd seen soppe seen xarit Seyda Fatima Zahra ak Seyda Zeynab macha allah kon ñu ngi am mbégte di leen nuyu di leen wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon duñ def lu dul jox. soxna Zeynab mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy ñi seetaan. Euh, euh, merci mhm. ngi lay fay mhm. am Mm-hmm. asalaamaaleykum yaa mm-hmm. Seyda mm-hmm. maa leen nuyuwaat bu baax a baax maa ngi lay fay di la ziar am mbégte ak kontante euh, ci ànd bi ñu àndaat fii ci plateau femme ak islam donc di nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne tey ñu ngi toog seen kër ñuy seetaan di leen ziara ñoom tamit am mbégte ak kontante fas yéene àndalaat ak ñoom ci plateau di femme islam donc di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy caméraman ñi fi nekk comme Yaya ak Izo di nuyu waa aussi ku ci mel ne euh, Augustin sama xarit sama frère. Mhm. di nuyu papi di nuyu maman Gagne Siri bu baax a baax. waaye di mhm. nuyu tamit tonton Seydou bi nga xamante ni moom mhm. mooy directeur général. Euh, nouveau production bi à Seyda. macha allah. ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp macha allah ci nuyu waa aljanna ëllëg macha allah kon ñëwaat nañ fas yéene jàkkaarloo yéen ci seen femme ak islaam du dara lu dul toog di leen wax ni jigéen nan la wala comporté woo ci diine lislaam ndax lislaam dafa am fu mu teg jigéen waaye ndax jigéen xam na loolu kon damay bàyyi Zeyna mu dugg ci li nga xam ne moom mooy thème bi mu wax ñu tey lan lañ war a waxtaanee tey ci femme ak islaam jërëjëf yaa Seyda du ma dugg ci thème bi de <laughs> en tey dañoo nar waxtaanee ki nga xamante ni mm-hmm. tey suñu mbokk jigéen ñu baree baree bari bëgg nañu xam kooku mooy kan mm-hmm. parce que am nañu ko bëgg te xamuñu ko am nañu ko sopp te ba léegi xamuñu moom mooy kan mm-hmm. am na sax tey ñu ko tuddee doom ba léegi tey xamuñu moom mooy kan et mu nekk ku mu nekkoon ku baax a baax koo xamante ne tey am na lu ñu jotoon a dégg ci histoire am mais li ñu bëgg xam lu baree bari amaana xamaguñu ko donc mu nekk koo xamante ni kooku mooy euh, soxna Xadija bi nga xamante ni moom mu nekkoon soxna ci euh, gën gi mbindeef di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am mag ñu baree bare ñoo xamante ne tey am na jikko yu yu ñu doon roy ci ñoom mm-hmm. et ñun xale yi tamit soxla nañ bu baax a baax xam mm-hmm. kan mooy soxna Khadija mm-hmm. waaye soxla nañ aussi roy ki nga xamante ne moom mooy soxna Khadija donc première question bi ñu lay laaj yaa Seyda mooy nga wax ñu kan mooy soxna Khadija yaa Seyda macha allah soxna Zeynab da nga dugg ci soxna si nga xam ne moom mooy ummul muminin mhm. moom mooy yaay jullit ñi nga dugg ci soxna si nga xam ne tey royukaay la mhm. wax nga ko nit ñi tuddee nañ ko doom te xamuñu ko waaye lan moo ko waral ndax jikkoom ju rafet macha koo xam ne macha allah lépp loo wax ci moom rek desal nga lu bëree bari ci lu baax mhm. soxna xadija moom mooy xadijatu bintu xuwaylit ibnu asad ibnu abdul uzza ibnu qusay Mm-hmm. waaye wakaanat kaanat zaata nasabin wa sharafin wa maalin wa jamaalin mu nekk soxna soo xam ne Xuwaylid mooy baayam mm-hmm. limal naa la ay maamam ba ci xusay waaye mu nekkoon soxna soo xam ne boroom alal la borom juddu la mm-hmm. bokk ci yax bu rëy waaye nekkoon jigéen ju taaru boole loolu yépp macha allahu taala taara nga ci moom jikko ji rafetam ci moom juddu mu ngi ci moom lépp a ngi ci moom lépp loo xam ne lislaam daf ne góor mun na ko tànnee soxna rek lépp dafa nekk ci soxna Xadija mm-hmm. mu nekk soxna soo xam ne tey jigéen boo bëggee mel yenn melokaan yi rek ñëwal xool istuwaaru soxna Xadija mm-hmm. boo toppee ci ay tànkam rek dina baax macha allah waaye mu nekkoon soxna soo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkul moom mooy premier borom këram mm-hmm. soxna Khadija amoon na ñaari borom kër avant sallallahu alayhi wa sallam mhm. sëy na ñaari yoon mhm. te amoon na ñoom ay njaboot am na ñu ne benn doom am na ñu ne ñaari doom mhm. ba nga xam ne alal ji nga xam ne am na ko sax da koo doon ci borom kër gi nga xam ne moom moo génn àdduna avant sayyidina Muhammad mm. sallallahu alayhi wa sallam kon mag la woon mm. ndax moom moo magoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkoon borom daraja mm-hmm. nekkoon koo xam ne ñëpp ko soxla woon mm-hmm. ministre yeeg président yeeg ñëpp doon ñëw ci soxna Khadija pour jël ko li nga xam ne moom mooy soxna mhm. waaye mu nekk jigéen ju xam boppam mhm. jigéen ju am valeur mhm. macha allahu taala mu am li nga xam ne moom lay tànn ci borom kër ndax borom kër dañ koy tànn kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee iza ataakum man tardaw na diinahu wa xuluquhu fa zawijuhu wa illan takun fitnatun wa fasaad yonent bi mu ne nit bu duggee sa kër di ut soxna xoolal ñaar jigéen ñaar la war a tànn ci góor pour sëy ak moom yonent bi mu ne na nga tànn diineem bu la doyee na nga dugg waaye na nga tànn tamit jikko ju rafet ndax ñaar yooyu pour man moom la jigéen war a tànnee borom kër mm-hmm. waaye du aka am alal waaye gis nga ni mu mel waaye bu solee body bi waaye gis nga sikkim bi kenn du ko tànnee góor mm-hmm. parce que loolu téewul jigéen mais soxna Khadija façon daraja borom daraja bu nekk ñëw na pour bëgg ko mu ne déedéet man daal kenn ki rek laa gis kooku mooy njool màkka te mm. bu ñu xuusee ba ci biir ma wax la lan moo tax mu dugg ci Seydina mm. Muhammad macha allah macha mm-hmm. allah yaa Seyda mais bëgg est-ce que na nañu xam tey euh, mm-hmm. avant muy tudd Khadija mm-hmm. naka la tuddoon ndax yaakaar naa bi mu ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la tudd Khadija donc avant muy ànd ak euh, gën gi mindeef mën nañu xam naka la tuddoon moom euh, soxna Khadija waaw xam nga Zeyna man nag ci li nga xam ne moom laay jàng mm-hmm. ci sama xam-xam xam-xam nag yaatu na mm-hmm. man Khadija laa xamoon ci moom Khadija mm-hmm. ñu ne bintu Xuwaylid moom Xuwaylid moom mooy papaam ibnu Asad ibnu abdul uza ibnu qusay mhm. man Khadija moom la xam ci li nga xam ne daal moom mooy turam waaw macha allah mais mhm. yaa Seyda est ce que mën nga ñu wax tey soxna Khadija naka la def ba xamante ki nga xamante ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ñoom seen relation wala seen ànd fan la démarré woon mhm. comme comme comme niñ koy defee nii rek tey mhm. balaa ngay ànd ki nga xamante ni peut-être moom mooy sa soxna avant mu mhm. lay takk am na foo mhm. xamante ni peut-être foofu ngeen xamante am na foo xamante ni peut-être foofu ngeen foofu ngeen jaar am na foo leen jaar quoi ba ngeen di soog a dugg ci li nga xamante ni moom mooy sëy donc est que mën nañu xam tey soxna Khadija ak ki nga xam ne mooy Seydina Mouhamad fan la ñu xamante ak seen relation fan la démarré woon macha allahu taala soxna Zeynab laajte nga question bu am solo te xam naa ne am na ñu koy xaar pour mhm. bëgg koo xam mhm. parce que Khadija commerçante la woon mhm. bari alal mel nu ko neex macha allahu taala yonent bi sallallahu alayhi wa avant yàlla di ko yónni dafa wóor bañ tuddee ko al amin ku wóor gi ndax buñ fàtte ne sallallahu alayhi dafa am ñaari weer ci biiru yaayam baayam génn àdduna mu am juróom benn at yaayam génn àdduna maamam yar ko di Abdul Muttalib mhm. mu am juróom-ñetti at maamam génn àdduna mhm. ci la ko papaam jël Abi Taalib ki nga xam ne euh, rakk papaam la mook papaam ñoo bokk moom mhm. Abi Taalib ba mu ko yoree Abi Taalib dafa bëri ay njaboot macha allah waaye gàntuwut ndax bëri yërmandeem moo tax maamam Abdul Muttalib ba muy génn àdduna Abi Taalib la ko dénk ne ko xam naa ni bari nga ay njaboot dund gi métti na loolu waaye yow yaa doy ndax sa jikko ju rafet mhm. mu jël Seydina Muhammad teg ko ci loxo Abu Taalib mhm. Abu Taalib rafetal nag ci yorin bi mhm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jirim la Abi Taalib yor ko ba mu gënal ko ay doomam Abi Taalib mu may papa Seydina Ali radiyallahu anhu ba loolu amee Euh, Abi toog benn bis nekko ko yonent bi Muhammad mhm, sallallahu alayhi wa sallam dama la bëgg a boole Khadija mhm. jigéen ju baax la mhm. dafay jaay sant la ñëpp xam nañ ko ci Màkka bu ko defee yow nga koy jaayal ñu bañ a toog nga xam ne di ci am astuut loo xam ne dina la mën a fajal sa yenn soxla yi ba loolu amee Abi boole ko Khadija xadiija di jox yonent bi sallallahu alayhi wa muy jaayi mais ci biir loolu xam nga yàlla suñu borom dafa yéeme fu mhm. nekk rek dafay wane boppam mhm. fu nekk rek yàlla dafay wane boppam ba loolu amee xadija di seetlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci melokaanam ci jikkoom ci yaroom ci léppam bu ko defee mu boole koog benn waay buñ naan maysara mhm. ba maysara jaam la woon ci xadija muy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñiy jaay mais bi yàlla da ko defal benn kéemtaan buy jaayi naaj bi lu mu tàng tàng tàng benn niir mooy ñëw topp sallallahu alayhi wa sallam. lan mooy niir. niir mooy ker. Ah, ker gi day ñëw tiim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey boo toogee naan dafa tàng naaj bi mu ngi may bëgg a rey mhm. Muhammad yëgu ko mhm. ndax foofu yàlla commencé na di wane ay kéemtaanam mhm. sara mu ngi seetlu loolu bu ñëwee wax ko Khadija ne ko ah waa ji de ba ma àndeek moom tey naaj bi lu mu tàng-tàng moom fu mu taxaw rek day am ker gu ñëw tiim ko macha allah Khadija noté mhm. bu àndeeg yonent bi salaa salaam beneen jour moom Maysara di jaay yonent bi marchandise bi lu mu bëri bëri bëri ay nit ñooy ñëw di ko jënd ñoon ñooy al malaikatul muqarrabuun laa yashrabuuna wala yakuluuna wala yanaamuuna wa hum ibadullahi al mukarramuun yooyu ñoom ñooy ñëw di jënd li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaay te soxlawuñ ko waaye loolu yëpp kéemtaanu borom bi allahu subhanahu wa taala mhm. maysara bu ñu jaayee ba ngoon jot mu ñëw ne xadija tey gisaat naa beneen kéemtaan de mhm. waa ji daal ba ma àndeek moom di dem di jaay moom daal ay nit ñooy ñëw sol lu weex taal taal bëri lépp lu mu yor rek gars yi dañ koy jënd mhm. parce que yonent bi lim daan jox at boobu lim doon jox xadija ci xaalis xadija musu koo téye mhm. ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maysara ba mu ñëwee nettali ko xadija xadija tamit am lu mu seetlu ci yonent bi mhm. xadija ne dinaa ko seetluwaat beneen façon weer bi dee fayut sallallahu alayhi wa sallam di xaar pour yonent bi ñëw laaj ko salaire ak a maanu ak a yaru parce que yàlla ci boppam moom moo ko yaral boppam mm-hmm. yonent bi wax na ko nee na nii ma mel yàlla suñu borom la mm-hmm. ndax kenn du ne yaayam moo ko yar mm-hmm. kenn du ne baayam moo ko yar mais yàlla moom moo ko yar rafetal ci moom macha allah yonent bi day toog abi taalib ne ko waa yow mbaa Xadija fay na la mu ne ko fayaguma de Habib bi ne ko demal nga laaj ko bii mooy ñaata weer nga toog fayu la sa xaalis fekk Xadija moo ko def espérer di mhm. xaar pour yonent bi ñëw laaj ko mhm. pour seetlu ko mhm. moo tax borom kër dañ koy seetlu waaye soxna yi dañ koy seetlu ba loolu amee Abi Taalib bu ne ko demal jëli sa xaalis yonent bi day ñëw taxaw buntu Khadija wëraalu xool xool ndax kersa dafa am kersa mhm. xam nga lañ naan alxaya minal iman mhm. kersa dafa bokk ci ngëm yàlla mhm. gis nga Zeyna ko amul kersa yow sa ngëm des na kersa moom mooy lépp kon yonent bi kersa gi mu am tax na munta jàkkaarloog soxna Khadija ne ko damaa jël si sama xaalis ay bu doon man Seyda Fatima e jox ma sama xaalis de munuma laa liggéeyal ci merci boobu ba tey maa ngi lay liggéeyal munoo maa fay fay ma waaye sallallahu alayhi wa dafa am yar xool di ko seetlu day gis yonent bi di jaabante te Xadija xam na yonent bi li mu bëgg a laaj mhm. waaye xam na ne waaju ji mënu ko koo laaj ndax kersa soxna Zeynab dëgg la ba loolu amee macha allah Xadija seetlu lépp mhm. woo benn xaritam biñ naan Nafisa mhm. ne ko Nafisa kaay dama la bëgg a ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Muhammad Nafisa ne ko loo koy doyee nga xool ko suñu génération bi mu ne ko dama koo bëgg Nafisa ne ko bëgg yow ja xoolaan nga sa bopp gis nga ni nga mel personnalité bi ci yow classe bi ci yow mhm. ministre yeeg borom daraja yëpp topp la mhm. yow amoo kenn koy topp lu dul sa mindaan ki nga xam ne yow yaa koy jaayloo mhm. xam nga loolu am na suñ jamono dëgg la da bëgg nit ku mel ni Fatima ñëw di la décourager dëgg la ndax lan waaye soxna Khadija dafa gumba taxlu mhm. ndax la mu gis moo ko ëpp doole mhm. mu ne ko demal rek nga waxal ma li ma bëgg bu dee mën nga ko mhm. Nafisa ne ko amul problème bu dee loolu la mën naa dem mu ñëw fekk sallallahu alayhi wa sallam toog Nafisa ne ko xam nga lu ñu naan jigéen moom inna kayda kunna azim pexe jigéen ci boppam moo màgg dëgg la ne ko Muhammad lan moo tax amagoo soxna yonent bi ne ko nan laa amee soxna man awma dara sama baay moo ma yor Mm-hmm. aw ma liggéey bu bu baax nga ne ma takk soxna ak bu ma takkee soxna lan laa ko yoree mm-hmm. Nafisa ne ko boo gisoon jigéen ju baax taaru mm-hmm. am juddu am classe am personnalité am alal ñëw ne dalaa bëgg Mouhamed nooy def yonent bi ne ko kooku fan laa koy gisee ak kooku mooy kan parce que lañ naan lu la bett mën la dëgg la Nafisa ne ko kooku mooy Khadija ñu ne yonent bi dafa toogoon mais dafa jug taxaw ndax tiit parce que lu la bett mën la ne ko Khadija ban Khadija Nafisa ne ko Khadija moo ma yónni ci yow. Mhm. nee na dalaa bëgg ngir sa jikko. Mhm. bu dee bëgg nga rek yow wax ma waaye yonent bi ak kersam mu ne ko dinaa ci xalaat. Mhm. macha allah ci la ci xalaat. ànd ki nga xam ne moom mooy papaam di Abi Taalib. waxtaan ak moom. macha allah ak lépp loo xam ne nas nañ ko ci diggante bi. Mhm. ndax foofu Khadija papaam dafa bañoon. Mhm. ne ko duma la may xale bi. Mhm. macha allahu taala mais Khadija bëgg gi bëgg yonent bi foofu ñu ne dafa jël euh, sàngara. jënd ko jox ko papaam pour mu naan ko. papaam daraan naan sangara papaam da doon naan jamono jooju mm-hmm. ndax boobu avant lislaam la woon boobu yónneeguñ yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mais def ne ko woon duma la may Muhammad bam ne ko duma la may Muhammad Khadija xam ne moom gis na ci waa loo xam ne luqi na bëtam ci la jël sàngara jox ko papam sàngara bu bëri jëndal ko ko papa ji kontaan di naan di naan macha allah taala ba d'accord ñu daal di signé sëy bi macha allah kon dama lay bàyyi wax ji nga xuus tuuti. ah après ñu dugg ci li nga xam ne noonu la ñu takkee sëy bi. macha allah xam naa am na ñu toog ne ah am na koo xamante ni bëggoon naa ko mu nekk mhm. jigéen. parce que xam nga parfois dañuy wax naan. Mhm. jigéen warta dem ci góor. Mhm. di ko wax kay dama laa bëgg. mais comme li nga fi joxe nii exemple xam naa am na ñu toog genre Amina Fall yi naan ah xaaral ma ñëw dem ki sama waaja wax ak moom. <laughs> parce que am na lu may sentir ci moom. mais foofu yaa say daal liñ ci a jàng mooy kon euh, nit ki ngay ànd ak moom ci jikkoom aussi dafa nekk loo xamante ni lu am solo la parce que soxna Xadija gisul woon ne yonent bi dafa la gisul woon aussi peut-être euh, que ni dafa nekk ci juddu bu rëy. Mhm. wala kii mooy baayam wala kii comme ni ñu koy defee mhm. chaque jour. Mhm. xool ki nga xamante ni tey kii ci li mu bokk. wala li mu am wala li mu denc ci alal quoi. en général nit ñi loolu la ñuy xool. mais foofu dañuy gis ne soxna Xadija li mu gisoon ci Seydina Muhammad ba tax mu ànd ak moom mooy yar bi nekkoon ci moom. maanu bi nekkoon ci moom dëgg bi nekkoon ci moom mais surtout jikko ji rafet ji nga xamante ne moom moo nekk ci moom. donc foofu dañ fiy jàngee ne tey mën nañu ànd bu ñuy ànd ak ki nga xamante ni peut-être moom la ñu bëggan moom la ñuy bëgganteel mm-hmm. li ñuy li ñu war a gën a bàyyi xel ci moom mooy jikko ju rafet ga surtout aussi ak diine bi nekk ci moom mm-hmm. parce que comme ni nga ko waxee mm-hmm. am na ay ministres yu ñëwoon doon ko bëgg ay présidents yu ñëwoon di ko bëgg wala ay nitu daraja yu ñëwoon di ko bëgg mais tey mën nga mën am koo xamante ne peut-être am na addunaak li ci biir mais est-ce que yor bi mu la war a yor dina la yoree noonu est-ce que yërmande bi war seen diggante yéen ñaar dina ko def mhm. est-ce que ni mu la war a comprendre dina ko def te mhm. jigéen yaakaar naa li mu soxla mooy ku ko yërëm ku ko suturaal mhm. mais surtout ku ko comprendre parce que dañu naan ni suñu ween yi sëggee noonu la suñu xel yi sëggee donc foofu liñ ci jàng wala dégg-dégg biñ ci mën a am mooy toujours ku ñuy àndal muy góor koo xamante ni mu nekk a a jàppale ba ñu ànd ba yàlla di def li gën donc foofu sant yàlla bu baax a baax mhm. waaw dañ lay bàyyi aussi nga continuer nga ni ci biir sëy ba nu mu demee woon noonu ci soxna Khadija ak <laughs> Seydina Muhammad da wax lu am solo parce tey xoolal Khadija tey mhm. ba muy xool yonent bi xoolul alal tey ñaata nit ñooy sëy ngir alal. bari na. da ngay gis góor gu baax gu am diine bëgg la. Mhm. nga ne ma ko parce que mënumaa yor. dëgg mais fii yàlla mooy yor nit. Mhm. kenn yoru kenn. Mhm. jigéen ju nekk wërsëgam moo koy yor. mais nit kenn du dugg ci moom ngir alal. dëgg la ndax alal ji bis bu jeexee. nga dem bàyyi ko billaay te kon macha allah kon nit booy dugg ci moom duggal ci moom wa an yuhibba lillaahi. booy bëgg bëgg rek te yàlla tax. dëgg la yenn saa yow miy jigéen. danga yor la nga war a yor macha allah jigéen ñu baax ñaa ngi fi de. Mhm. ñu ngi fii ci biir dëkk bi. Mhm. di def kon ni Khadija daan def. Mhm. ñëw ci ku góor ki ne ko am. maa la jox lii takk ma. mais waxuñu tamit yaa seeda nga wax loolu rek am góor ñoo xam ne dañ naan comme defuma dara. donc mën naa takk soxna si na roy comme Seydina Muhammad na góor ñu jug liggéey ñoom it comme li ñuy wax y a pas de chômage nañu jug liggéey jéem a sagal seen bopp mhm. duñu dégg xisa bi rek wala wala wala <laughs> histoire bi rek ñoo bi ñu toog na yaa ci rasal bëgg a takk jabar mhm. jabar tamit boo ko takkee lu mu bon bon di ko suturaal yaa la dëgg la parce que tamit euh, doo toog fi nga toog naan yàlla yàlla mhm. yàlla sa tool waaye tamit buñ ne soxna su dafay fekk nga am góor gu mel ni Seydina dëgg la munoo ni mel ni moom teg teg nga roy ci ay jikko dëgg la ndax yàlla moo ne jël leen kii mu nekk royukaay bu rafet macha allah mais yenn saa da ngay gis soxna soxna mhm. soxna Zeyna mhm. bëgg góor ngir diineem man gis naa ko mhm. ay soxna yoo xam ne diine rek moo leen ñor dañuy bëgg góor ngir diine am seen alal war koo yóbbu ci ku góor ki ne mhm. ko takk ma mhm. mais dafa am ñuy ñëw ci yow di la mhm. découragé loo lu mel ni kon Nafisa bi ma wax waaye nee naa la mooy sama tante sama jabaru papa bi ko sama papa bëggee daf ne lenn laa soxla ci yow muy alquranul karim loolu rek tax ma dugg ci yow kon kooku diinee tax mu dugg ci moom kon dee keneen ñëw na di la découragé loo ku la sa digganteeg sa borom dëgg la ndax Xadija dafa nekk bañkat dafa xool li mu bëgg xool jikko parce que bañ ne ko macha allahu taala ñu ñëw dugg ci takk bi après dinañ ci xuus parce que ginnaaw yonent bi ba mu ko waxee abi taalib mhm. abi taalib fas yéene dem takk sëy ba mhm. waxtaan ak moom mhm. macha allahu taala mu xam ne xadija mi jommut sayidina muhammad dëgg la xale la mais jikkoom moom moo ko may loolu ndax yonent bi amu woon sax lu mu takkee xadija mais xadija moom moo jël alalam macha allah jox ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñëwal nga ñaan si ma macha allah na gis naa ko gis de bu dee am na wala bu dee <laughs> am na. mais ah. néew na tamit. dëgg la am na parce que fa ndox ba tey boo fa demee fekk fay tepp tepp. dëgg la mais moo jël alalam. Mhm. jox ko Sayyidina Muhammad. Mhm. sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñëwal nga ñaan si ma. Mhm. ci sutura nag. toogul fu nekk naan maa ko jox ne ko ñëwal ñaan sama dëgg la parce que jigéen da am sutura macha allah boo bëggee ay njaboot ju baax judd si da am sutura suturaal sa borom kër suturaal sa bopp ba loolu amee ñu daal di dem fekk papaay Khadija. Mhm. Khadija jëndal na ko sàngaraam bu doy. Mhm. muy naan. Mhm. xolam sedd mu ne ko papa ndax di ma may Mouhamed papaam ne ko waaw. ñu daal di almuslimuuna ala shurutihim jullit moom kàddoom rek lañ koy jàppee rek macha allah. Mhm. Khadija naxanteeg papaam ba jox ko fooy bi mu daal di signé. Mhm. parce que am na ñu naan sax papa ji ba mu demee ba nga xam ne. Euh, sàngara bi wàcc na bi wàcc na. Mhm. def ne ko man waxuma la koon Khadija ne ko fooy baa ngi ni yow yaa ko signé. fekk nag c'est trop tard. ba loolu amee Abi Talib jiital ay mbokkam. jiital sallallahu alayhi wa sallam. ñu dem kër Soxna Khadija. ñu toog ci njekk ak teraanga. kon ni ñuy xutbaa sëy mm-hmm. kon ni ñuy ñaanee sëy mm-hmm. mu def fa discours bu am solo moom abi taalib mm-hmm. ndax moom bokk na ci ku yar sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen inna ibnu inna ibnu axi hadha muhammad mu ne leen laa yuwaazinuhu rajulun sarafan wa nublan wa kaana fil maali xalla li anna al maala zillun zaa'ilun maa taala firil ñu wa ariyatul mustariya mu ne wallahi baada haza lahu saanun azimun mhm. jaa ilaykum fi roxbatan fi karimatikum fi hadihi xadija mhm. fi hadihi xadija mhm. moom abi taalib dafa wax discours bu am solo mun na inna ibnu axi haza muhammad laa yuwaazinuhu rajulun sarafan wa nublan mu neen waa jii toog di muhammad sama doomu frère bii di abdallah moom moo ko jur moom mooy baayam mhm. mu ne góor melut ni sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne xale bii mhm. góor melut ni moom ci jikko ju rafet mhm. ci tabe ci baax ci wax nànk ci dox nànk du siggi xool jigéen ci bëri kersa yonent bi du jëw du wax lu yoonam nekkul du dugg ci lu yoonam nekkul te boobu yónnee guñ ko mu nekkagul woon yonent ñu tuddee ko al amin ku wóor gi mhm. nga xool kon jikko ju rafet lan la mën a def tey ci doomu aadama mhm. moo tax abi taalib ne leen inna ibnu axi hadha muhammad laa yuwaasinuhu rajulun mhm. góor melu ni moom de raw na góor ñu bari macha allah mu ne leen na bu dee jikko ju rafet am na ko bu dee juddu ju baax am na ko mhm. bu dee teeyi ak maanu lépp loo xam ne soxna dina ko xool ci borom kër lépp a ngi ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen waaye bu dee alal nag amu ko de mhm. ndax amuñu dara ñun mhm. kon foofu wane na boppam kan mooy dem ci nit di ñaan ne ko aw jigéen di la accepter amul bu dee am na it bëriwut mais daf ne leen bu dee alal moom amuñu ko waaye bu dee jikko ju baax mu ngi ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ëpp alal loolu ëpp alal mu ne nag waaye nag ginnaaw loolu boromi mbir la de xale bii boromi mbir la mhm. saxanun azimun ah, ndax boobu mu juddoo ba tey mhm. ay kéemtaan rek la xale bi di wane mhm. ndax boromi mbir la weesuwut yow soxna su mel ni Xadija ñëpp soxla ko mu xool xale bu ndaw na mën ci kii laa bëgg a dugg kon kooku boromi mbir rek la mën a doon soxna Zeyna dëgg la moo tax Abi Taalib ne leen ginnaaw loolu de xale bii boromi mbir la kon ñëw nañ dugg seen kër seen kër gu tedd gii bëgg seen soxna su tedd si macha allah di soxna Khadija. Mhm. dugg ne seen kër fas yéene la ñaan li nga xam ne moom mooy soxna. Mhm. ba loolu amee nag. ñu daal di takk sëy ba sëy ba daal di tàbbi mhm. macha allahu taala ñu daal di muural Khadija mhm. yóbbu ko kër sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. mu sëyal ko sëy bu am solo macha allah ñu def fa céet bu am solo céet ba rëy na rëy goo xam ne keroog xalimatul saadiya ki nàmpal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon na keroog ca céet ba Khadija bañ ko xamalee kii moo nàmpal sa borom kër mhm. yaakaar naan histoire boobu ñëpp xam nañ ko Halimatu mhm. Saadiya mhm. moom moo nàmpal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wane fa ay kimtaanam kon kero Halimatu Saadiya ñëw na ca ceet ba Khadija jël na 40 bëy ak ay xar ak ay teraanga mhm. jox ko Halima ne ko ndax yow yaa nàmpal sama borom kër mhm. te ku teral sama sang man Khadija ma teral la macha allah ah macha allah yaa Seyda am na solo lool lool lool wax dëgg yàlla donc ñoom ñaan ñëpp daal dañoo macha allah dañoo dañoo dañoo àndante ci jikko ju rafet dañoo àndan dañoo ànd ci ngoor waaye tamit dañoo ànd tamit ci li nga xamante ne yàlla rek yàlla rek a tax mhm. nekkul ne alal moo tax wala judd bu rafet wala leneen ak leneen a tey yàlla fay ko lim ko fayee mais mun nañu xam lan moo tax tey soxna Xadija euh, ñu tuddee ko ummul muminin mhm. et nga wax ñu aussi lan mooy ummul muminin yaa mhm. Seyda macha allah soxna Zeyna mhm. euh, ummul muminin moom mooy yaayu jullit ñi xam nga umm ci arab mooy yaay mooy jullit ñi kon képp kuy jullit rek Xadija mooy sa yaay ndax Xadija lu tax mu nekk yaayu jullit ñi ak jullit ni mu rëyee ndax Seex Seydi Haaji Malick mhm. dafa wax lu am solo mhm. mu ne Xadiijatu naqiyat an saa'iri duhami mu ne Xadiija dafa set wicc wicc wicc ci lépp loo xam ne ñu ngi koy tuumaal jigéen te lislaam bugg ko mu ne Xadiija da cee set Xadiijatu naqiyat an saa'iri duhami kon loolu bokk na ci lu tax ñu tuddee ko ummul muminin mooy yaayu jullit ñi Khadija lu tax mu set ci li ñuy tuumaal jigéen te lislaam bëgg ko soxna Zeyna mm-hmm. Khadija musta def lu ñaaw musul wax lu ñaaw sëy naag yonent bi wa sallam sëy boo xam ne amul xuloo lépp ci jàmm lépp ci salaam la mm-hmm. mu jël yonent bi sallallahu wa sallam keroog ba Khadija sëyee ci këram dafa jël alal ja jël jëmm ja mm-hmm. jël lépp jébbal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko duñ ma moom ba pare may moom xam nga góor moom mooy kilifa ci biir këram. dëgg la même bu dee yow yaay jigéen. Mhm. yaa ko ëpp alal. Mhm. taxul nga imposer ko sa borom kër. dëgg la parce que ar rijaalu qawaamun ala nisa bima fadala allahu baaduhum ala baadin wa bima anfaqu yàlla def ne kilifteef dama ko jël jox ko góor góor moom mooy jiitu jigéen topp ci kon benn tubéy mooy nekk ci biir kër te góor moo ko war a sol jigéen bu nekk ci biir kër yow nga ne jigéen nga te yaa war a sol tubay bi da ngay sonna sa bopp ndax kilifteef yàlla góor la ko jox waaye jigéen yàlla def ne ko nanga nga toog ci kër gi nga sëy sëy bi liggéey la di soxna Zeyna sëy bi ci mhm. biir kër gi liggéey la mhm. mission bu mat moo fa nekk mhm. te soxna Xadija ba mu ñëwee ca biir kër ga nee naal dafa jël alal ja suufeel boppam jël lépp jox ko sallallahu alayhi wa sallam parce que lislaam loolu la sant jigéen toogal ci kër gi al ummul madrasa yaay mooy école nan nga war a nekkee ci biir kër gi soxna Zeyna dinañ ci dugg waaye góor la l'islam ne demal nga uti wa bi ma anfaqu yow yaa war uti jigéen ji lu mu war a lekk njaboot ji lu ñu war a lekk mhm. yow mi jigéen yaa ko war yow mi góor yaa ko war uti mhm. indil ko sa sa nga xam ne moom mooy sa soxna mhm. kon soxna Khadija dafa am toogaay bi nga xam ne du koo toogee ci kër Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël léppam jox ko ndax boo duggee ci Wadduha xam nga foofu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla toogee quarante jours wàcceewut ci moom alquran mooy ba mu fàttee wax insha allah gars yi di ko ñaawal ne euh, moom yàllaam ji da koo mere mm-hmm. ndax gëj na wàccee ci moom alquran ba question bi biñ ko posé sax mënu koo tontu. Mm-hmm. yàlla ne ko waddu xaa naa ci yoor yoor mm-hmm. wa layli isa sadia ma waat ci lëndamaayu guddi ne ko maa waddaaka rabbuka rabbu maa xalaa sa borom fàtte wala de dañ ne dama laa mere merew la de ndax walal axiratu xayrun laka minal ula ndax bul fàtte ne allaaxira moo gën àdduna dëgg la te bu boobaa wala saw fa yutika rabbuka fatarda la ko wax dinaa la jox ba nga ne ma doy na mhm. di ko fàttali li passé xam nga yàlla bu ne ko dinaa la jox ba nga ne ma doy na mhm. yàlla ne ko su ma la ko waxee war nga maa mën a gëm dëgg la mel bi def ne ko lu tax yàlla ne ko alam yajidka man fa aawaa wa wajadaka dolan fa hadaa dama laa fekkoon nga nekk ku réer mhm. ma jël la teg la ci yoonu siraatal mustaqim mhm. yóbbu sa yaay yóbbu sa papa yóbbu sa maam mhm. man yàlla man maa la yaral sama bopp mhm. wa wajadaka doolan fa hada mu ne ko wa wajadaka ghailan fa aana ma fekkoon la nga nekk nit koo xam ne amoo dara yow Muhammad mhm. ndax yonent bi dafa pauvroon mhm. yàlla na ko ma jël la boole la ak soxna su riche mhm. muy Khadija mu jël alalam jël léppam jox ko kon man yàlla su ma ne dinaa la teral war nga maa gëm ndax dafa am fu ma jaaroon ak yow kon loolu moo tax ñu dugg ci li nga xam ne moom mooy Wadduha kon macha allah soxna Khadija bu mu dugg see ci kër gi dafa jël alalam jël lépp jox ko sallallahu alayhi wa sallam ko jëlal nga gérer lépp ndax wali rijaali alayhinna daraja mhm. yàlla góor la jël jox ko daraja ci kaw ki nga xam ne moom mooy jigéen ñi kon soxna Khadija toog fa toogaay bu am solo mis parce que sallallahu alayhi wa sallam xam nga jigéen di nga nekk ci kër di sëyeeg sa borom kër mhm. dem ba nga xam ne da ngay da ngay nekk yaay ci moom dëgg la da ngay palaasu yaay. dëgg yow mi soxnaa da nga koy jël ci moom. dëgg la ndax soxna Khadija noonu la dundaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk yaayam. Mhm. féete koog palaasu yaay. Mhm. féete koog palaasu yëpp. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooyu dara mhm. xalaatu dara ba pare affection dafa amoon seen diggante mhm. parce que yow miy jigéen boo nekkee ci kër di sëy mhm. loolu sa liggéey la en tant que femme ci biir kër gi noonu la soxna Xadija defoon yow yaay liggéey loo xam ne affection day am sa diggante sa borom kër jegeel ko sa bopp miinal ko sa bopp borom kër dañ koy tarbiyu soxna Zeyna dëgg la kon soxna Xadija dafa tarbiyu sallallahu alayhi wa sallam wan ko ne yaay sama sang musul rëy ci kanamam am na jigéen ñoo xam ne tey dañuy am lu ñuy am macha allah toog seen biir kër. Mhm. seen borom kër amut mais dañ lay wan ne man maa am. Mhm. ci samay waaw ngay topp. Mhm. li ma wax loolu mooy am. kon ñooñu royuñu ci soxna Khadija. dëgg la kon loo mënti am bu ko wan sa borom kër. borom kër dañ koy tarbiyu. soxna Khadija da doon tarbiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. da doon dab bànneexam. lépp loo xam ne palaasu yaay la soxna Khadija taxaw na fa. fépp foo xam ne palaasu soxna la. soxna Xadija taxaw na fa. Mm-hmm. ci dund bu rafet ci dund bu am solo yonent bi musta sentir absence su yaayam wala mm. absence su keneen ndax soxna Xadija macha allah yaa yaa yaa Seyda li nga wax am na solo lool mm-hmm. mais dafay fekk comme yaa ngi wax jigéen mm-hmm. dafa war a nekk koo xamante ni dafa war a tarbiyu jëkkëram mm-hmm. borom këram mais tey am na ci góor ñoo xam ne jigéen yaa ngi góorgóorlu de jigéen yaa ngi bëgg a euh, roy euh, euh, mag ñu baax de mais seen góor yee leen jàppalewul parce que tey Seydina Mouhamad dafa jàppale woon soxna Xadija ba ñu dem ba mu mel ne moom mooy waajuram bu jigéen ñu dëgg mais tey am na jigéen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey liggéey di am loo xam ni mhm. seen borom kër yi amuñu ko mais kenn xamu ko mhm. parce que seen borom kër yi tey bu ñu solee jesner mhm. ñoom ñoo leen solal jesner et dañuy comporté woo comme si ku góor ki moom moo ko jëndal boppam ñoom dañuy sañseel seen bopp jënd jesner yu baax wala takkaayu or yu baax fekk ñoo ko jënd seen xaalis mais pourtant fu ñu taxaw moo xam seen famille la ñoo xam seen i nit mais dañuy ndamoo sama jëkkër moo ma jëndal lii loolu yëpp pour <laughs> doon def mm-hmm. mais ñu am loo xamante ne dinañ ko jéem a roy ci moom mooy mm-hmm. jàppale tamit seen soxna yi mm-hmm. parce que jigéen ku ko jàppale mu dem yaa sayda jigéen ku mu xas ba bëgg loo ko mënti def loolu ci bëri mën na ko accepter man mën naa ne lépp sax jigéen bu xasee ba bëgg góor lépp lu ko jëkkëram mën a def mun na ko tegoo parce que lan moo tax amour bi lay xool toujours parce que loolu mooy base bi et ñu bëri tey lan moo tax ñuy nangoo muñ yenn yi seen i borom kër lan moo tax ñuy mën ñuy nangu def yenn sacrifice yi maanaam di mën a di di sagal seen bopp di liggéey di daan doole def ci biir kër gi c'est parce que dañoo bëgg ki nga xamante ne moom ñoom moom la ñuy sëyal mais da nga ciy gis jigéen boo xamante ne wax dëgg yàlla dafay sonn mm-hmm. di góorgóorlu bu baax a baax ci biir kër gi mais borom ñaa ngi sëy wax dëgg yàlla mm-hmm. mais seen i borom kër ñoo leen jàppalewul donc xale yu góor yi ay waay ngalaw waay dimbali leen ñu mm-hmm. ngeen jàppale ñu mm-hmm. dañoo bëgg a sëy mm-hmm. wallaay xale yu jigéen ñi bëgg nañoo sëy mais góor ñee ñu jàppalewul jàppaleen ñu jàppee leen ñu comme ñu bokk ak yéen ndey ak baay parce que Ousseynou Sall wax na ko mm-hmm. nee na sa jabar jëkkër ak jabar dañoo war a mel ni ay cousin cousine du dëgg parce que foofu dafa war a nekk loo xamante ni benn complice moo war am seen diggante yéen ñaar benn xaritoo bi aussi dafa war a am seen diggante yéen ñaar ba kenn ku nekk dina mën a comprendre moroomam du dëgg donc tey su fekkente ne xale yi góor yi wallaay jàppale nañ jigéen ñi rek dinañ dem yaakaar xanaa problème yu bëri du du du am. kon nag bu ñu jàppalee rek <laughs> incha allah dinañu dinañ dinañ. Euh, mais mënuñu jël jikko soxna Xadija uh-huh. lépp mais tamit dina am loo xamante aussi dinañ ko ci xaw a nduru quoi. pour bu ñu suñu xale yu góor ñi jàppale. non xale yu góor yi dañoo ah, seen jabar yi yaa Seyda. si wax lu am solo soxna Zeyna parce que buñ ne hmm? soxna Xadija buñ ne soxna Khady. na ñëw dëgg dëgg <laughs> ah. Augustin nee na ba xam mu takk ma jabar yow sama xarit nga sama frère nga ñëwal yow ku baax nga. <laughs> nit gënu la yaa gën papilo <laughs> xam nga tey boo ne soxna Khadija. Ah. xam nga tey am na jigéen ñoo xam ne. Mm-hmm. bëgg nañoo mel ni soxna Khadija. Mm-hmm. wala mel nañu ni soxna Khadija. Mm-hmm. di góorgóorlu mhm. di dab seen bànneexu jëkkër kon ni nga mhm. ko waxee mhm. di leen tarbiyu mais dafa am góor ñu melul ni Seydina Muhammad dëgg la sallallahu alayhi wa sallam gis nga dañ ne benn loxo du tàccu de te benn lam du yëngatu dafa am jigéen ñoo xam ne ñu ngi souffrir seen biir kër yi wallaay bëgg nañu sëy lool ñu ngi daj loo xam ne tey kuñ ko nga téye sa gémmiñ te ñu ngi toog di sëy sëy kon ñooñu bëgg nañoo sëy wallaay waaye amuñu góor ñi leen jàpp dëgg la soxna Zeynab da nga wax lu am solo góor ñi yenn saa yi ñooy seereel mbir mi. maa lool. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yombaloon affaire bi. Mm-hmm. danaan foog ay soxnaam. Mm-hmm. di bëreek ñoom. Mm-hmm. di kaf ak ñoom. lépp lu ñu bëgg mu ñoom. parce que yonent bi def ne. ki gën ci góor ñi. mooy góor gi gën ci biir këram. te man maa leen gën. ndax man maa gën ci sama biir kër. ñoom waaye soxna Zeyna. Mhm. lan mooy góor goo xam ne. Mhm. da ngay nekk sa biir kër. Mhm. di fasal sa soxna kanam. boo génnee reetaanal ni ci biti boo mbedd bi di ree di xàqataay sa lu mu la laaj doo ko ko jox. boo génnee ci mbedd bi benn xale bu jigéen jugee fee la nga yor yëpp nga. ñu ko jox ko est-ce que loolu c'est normal. ñàkk di la sax man dama ne jigéen ñu mel ni soxna Xadija ñu ngi fi de. wallaahi ñu ngi muñ ñu ngi xare ñu ngi tarbiyu seen borom kër. mais góor ñi ñoo leen jàppale. jigéen bu demee bay xëy di liggéey xam nga sa jigéen moomut muy liggéey mhm. parce que l'islam daf ne ko toggal ci kër gi sëy bi mhm. liggéey la nga tar tarbiyu sa borom kër mhm. ba ci liggéey bi ngay def boo ci amul sa ndigalu borom kër doo ko def kon léegi yow miy jigéen boo demee bay xëy di liggéey pour jàppale sa borom kër dëggantaan tey boo xëyee sa yaram day daw mhm. oto yi jigéen ñi ñoo fay nekk di buuxante góor ñi mhm. bureau boo dem góor ñaa ngi fa jigéen mhm. ñaa ngi fa mais boo gisee jigéen ñi di ko def pour lan jàppale seen borom kër dëgg la boo jàppee ci lee ñu jàpp ci lii mais am na góor ñoo xam ne dañ koy def ndokku yàlla dañuy jël seen xaalis. Mhm. dugal ko seen poche seen soxna luñ leen wax jox ma ñu ne amul. waxuma seen soxna sax mais seen i doom sax la war ci ñoom duñ ko def te pourtant am nañ ko. te lool du dëgg du yoon. Mhm. jigéen dañ koy yërëm. Mhm. jigéen dañ koy dëkkal. jigéen dañ koy dëkkoo. jigéen dañ koy suturaal. billaay ndax soxna Zeyna. nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. def na dërëm bi gën ci dërëm yi. mooy dërëm bi ngay dépensé ci say njaboot. dëgg la. say njaboot bu ñu kontaanee mhm. sa soxna kontaan mhm. loo yootu mën na laa yokk mhm. nee naa la yonent bi dafa tëdd ci lalu sukuraat ci fan yu mujj ci fanam ci bis bi mujj ci bisi xam nga lan la doon wax ittaqullaha fi nisaa ay waay ragal leen yàlla ci jigéen ñi góor ñi dénk naa leen jigéen ñi naa leen ci jigéen ñi jàmm ak yiw ak teraanga kon jigéen lépp looy jëflante ak moom bil maaruf la la yàlla wax lay seetaan waaw nga fàttali leen na yonent bi dañ leen a dénk waaw dafa dégg góor ñi fàttali leen que ni yonent bi ñu ngi lay dégg xam dama bëgg nga fàttali leen ko su <laughs> fekkente ne ñoom dañ ko xaw a fàtte ngay leen yonent bi sallallahu leen daf leen ñu dénk ñun jigéen ñi ngir yàlla tee leen ñu parce que xam lu tax yaa sëy daa mhm. am na jigéen ñi nga xam ne tey ñu ngi seen kër di sëy mhm. sérieux xolal mhm. parfois soom bi mën nañ ko ndékkee mën nañ ko añee mën nañ ko reeree parce que xam nga tamit chaque jour mënul neex tey mën na neex suba mën na neex yaa ngi dégg mm-hmm. am na ci ñoo xamante ne tey loolu mën nañ ko ndékkee xëyee ko lë euh, euh, ndékkee ko añee ko reeree ko mm-hmm. te bu ñu génnee kenn du leen xamal dara te seen jëkkër yooyu ñu toog di muñal mm-hmm. ñoo leen gën a mën a toroxal ñoo leen gën a mën ñoo gën a mën a yàq seen der parfois nga gis jigéen boo xamante ni mu ngi ci biir këram di sëy di muñ loo xamante ni yaayam yëgu ko papaam yëgu ko parce que bëggul kenn xamal ko dara bëggul ay noonam ree bëggul tamit ñi ñi ko bëgg tamit di di am ay di am naqar ci moom wala yërmande ci ñoom ci ci moom ba tax mu ngi muñ loo xamante ni tey kenn xamalu ko dara ko war a jàppale muy borom ci këram ci biir këram jàppale ko au contraire boo moytul da koy tekk stress moo tax lan lañ wax hôpital yi tey boo demee ñu ci bëri ay jigéen nga fay fekk stressé wu nañ ba ba ba goiatir te xale yu góor yi ñoo ñu ko teg leen ñu waaye ngir jëmmi Rasulullah mi nga xam ne moo leen ñu dénk <laughs> xam nga yàlla suñu borom mi jigéen. Mm-hmm. parce que góor ñi balaa maa dee. Mm-hmm. ñu ne soxna si dafa dëgër bopp. Mm-hmm. kenn du ko wax lu dégg. wax naa ba sonn. mais xanaa dañoo fàtte. yàlla ba mu bindee suñu maam Adama. ci faaram la bind jigéen. suñu maam Hawa. yonent bi mu ne. jigéen dañ ko bindee ci faaru góor. kon dafa dëng. te lu dëng boo ko naree jubbanti dafay damm. dëggantaan. yaa ngi dégg mhm. parce que jigéen ku mën a muñ dëgg moo mën a yor jigéen ñun nag moom dañoo sikk mhm. ñun ci erreur la ñu dëkk mhm. mais góor ñu ñooñu war a comprendre ñooñu gën a sikk sax nag mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla dafa joxoñ yonent bi mhm. mu ne jël leen ci kii royukaay bu rafet mhm. ay soxnaam dañ ko daan sonal ci biir kër bi ba mu gàddaay mhm. dem toog ca jumaa ja ndax mere leen te kooku moom moo gën ñëpp te bu ñëpp si waatee day mel ni dara xewut day kaf ak ay soxnaam di bëreeg ñoom di réew ñoom te du leen gàntu te mhm. fu mu toll mu ngi leen di ibbil seen kanam mhm. kon góor ñi ñoom ñoo war a jàppale soxna yi mhm. soxna yu mel ni Xadija ñu ngi fi fees fi dell waaye góor ñu mel ni Sayyidina Muhammad ñu ngi fi ci jikko ju baax du ma ne amul de waaye jafe na kon jàppale leen soxna yi ñu sëy ndax ñun yàlla moo leen ñu dénk yonent bi mu ne ay waaye ittaqullaha fi nisa ragal leen yàlla ci jigéen ñi séq leen ak jigéen ñi jàmm am na góor ñoo xam ne bu ñuy jox seeni soxna dépense dañ dañ la koy sànni te fekk moom tegu la ko de mhm. yàlla moo la ko teg mhm. na mhm. kiswatuhunna rizquhunna wa na bil ma'ruf yàlla mu ne lépp luy solo lépp luy dëkkuwaay lépp luy sa jabar feebar nga faj ko lépp luy depanse lépp lépp ci kaw ku góor kii laa ko teg waaye ngelawaay boo koy génnee di ko jox soxna si bu ko ko jox joxinu jéppin ndax yàlla moo la ko sant yàlla mu ne bil ma'ruf na nekk si njekk ak teraanga boo koy jox dépense soxna si tegu la ko ba nga ba nga koy mere de mhm. yàlla moo la ko teg mhm. jox ko ko ci njekk mhm. ak teraanga bu feebaree jël ko yóbbu ko hôpital. Mhm. faj ko ci njekk ak teraanga. Mhm. am na góor ñoo xam ne seen soxna bu feebaree sax dañ leen di daw. ak ay dëgg ndax ragal joxe dépense. Mhm. ndax ragal a jënd ordonnance. te moom tegu ko yàlla moom. bi nga ba xam ne yooyu yëpp da nga koy daw wala da ngay am problème boobu mënoo la ñu daan def ci moom. parce boo ko takkee. su fekkente ne yoroo sax li nga ni moom maanaam comme mënoo ko yor yenn yorin yi quoi yoroo yenn yenn yi mais xel bu dal jigéen boo koy defa rek mhm. loo bëgg ci moom mën nga ko am ci moom mais est-ce que mën nañoo xam tey soxna Khadija euh, Seydina Mouhamad bi euh, wax yu daan ñëw ci moom mhm. maanaam bu yàlla daan ko daan ko daan ko daan ko wàccee alxuraan ci moom tey naka la doon comporté ak ki nga xamante ni mooy Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam macha allah soxna Zeyna mhm. dugg nga ci lu am solo ndaxte gis nga soxna Khadija yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. avant alquran di wàcc moom. Mm-hmm. da daan xëy di dem fi ngay xam ne moom mooy xaarul xiraa. Mm-hmm. di fa toog di wéetal yàlla di xaatir kan mooy yàlla ku fi def asamaan ku fi def suuf. Mm-hmm. waaye ñun kan moo ñu bind lan moo ñu indi fi di xaatir. kon ba muy imaginer loolu di imagine loolu di fa toog di fa wéet di fa wéet. ba lekkam ak naanam jeex mu ñëpp si waat ci kër gi soxna Xadija préparé waat ko ay lekk mhm. ak ay naan mhm. mu sangu mhm. mu xolal ko yére yu rafet toppatoo ki nga xam ne moom mooy sangam nee naa la soxna dafay am jotu boroom këram wan ko ne man maay sa soxna dama am sa jot góor dafa war a sentir ne sama soxna si am na sama jot dëgg la ndax loolu sa rôle la yow mii di jigéen nekk ci biir kër gi ndax nee naa la sëy bi liggéey la macha allahu taala soxna Khadija musu koo wax ni. Mhm. yow nga bàyyi fii sa soxna ay weer. ngay dem kenn xamul fooy dem. Mhm. nga ne da ngay wéetal yàlla bàyyi ma fi man kase musul wax ak loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musu koo wax ne doo génn kër gi. Mhm. am na jigéen ñu koy def. kër gi doo fi génn de. xaw ma foo jëm waaye man kase doo ma fi bàyyi soxna Khadija musu koo wax. yonent bi lu mu bëgg rek soxna Khadija da ko ciy fekk si. ànd ak moom defal ko la lam koy defal. toog ci kër gi di sëy sëyam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaat xaaru xiraa di mhm. wéetar borom bi allahu subhanahu wa mhm. yàlla suñu borom yónni jibril ci moom ci niñ ko xamee mhm. déggee ko ñun ñëpp jibril ba mu ñëwee ci sallallahu alayhi wa sallam fekk ko mu toog ca la muy xaatir mhm. ndax da doon xaatir kan mooy yàlla mhm. lan moo bind lan moo fi def asamaan lan moo fi def suuf yàlla ne jibril damal nga wax ak moom ndax mbir mi jot na te waa ji dama ko yónni ngir mission mhm. kon lépp loo gis rek dafa am waxtu bu waxtu ba jotee rek dafay yomb jibril ne cëpp ci kanamu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko iqara jàngal yonent bi tiit ndax gis na lu musta gis mhm. yonent bi jibril jël ko gësam ko sànni ko mhm. ba mu ñaq tooy xepp ne ko iqara jàngal kon soxna Zeyna foofu lan lañ ciy jàngal pour nga xam il faut nga jàng dëgg la boo jàngut mhm. doo xam dëgg la kon lépp loo gis ci iqara la njëkk a commencé mooy jàngal kon jàng dafa am solo ci doomu aadama dëgg la lu Cheikh Seydi Hadji Malick wax mu ne nit ku amul xam-xam ak mala ñooyam mm-hmm. kon bam ne ko jàngal-jàngal yonent bi ne ko lan laay jàng mm-hmm. Jibril ne ko bismi rabbika lazi xalaq jàngal sa turu borom bi nga xam ne moom moo la ndax ba tey yaa ngi imaginer lan moo bind ki nga xam ne moom moo la bind mm-hmm. allazi iqra bismi rabbika lazi xalaqa xalaqal insaana min alaq ki nga xam ne moom moo bind doomu aadama ci lumb lumb deret ndax doomu aadama man yu nga woon mm-hmm. sperme mm-hmm. quarante jours yàlla soppi ko mu nekk deret mm-hmm. quarante jours yàlla soppi ko mu nekk nit yax yàlla jëlaat yax boobu jël yàppam lépp roof ba mu nekk doomu aadama mu ne fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin dëgg-dëgg man yàlla man rek maa mën a bind wallaahi kon jibril ne ko jàngal sa turu borom bi nga xam ne moom moo bind doomu aadama ci lumbu lumbu dereet mu ne ko iqara jàngal mu ne ko ci lan mu ne wa rabbukal akram sa borom bi nga xam ne moom rek a màgg mhm. allazi allama bil qalam moom moo xam le xam-xamu bind mhm. ay waaye allamal insaana maa lam yaalam moom moo xamal doomu aadama lu mu xamul woon dëgg la kon yonent bi keroog lépp loo xam ne musu koo xam mhm. yàlla yónni na jibril pour mu xamal ko ko allamal insaana maa lam yaalam ndax yàlla ci boppam moom moo xamal doomu aadama lu mu xamul dëgg la kon soxna Zeyna boo jàngul doo xam dëgg la kon pour nga xam faa nga jàng mhm. li français naan éduquer vos éduquer les enfants mhm. l'avenir de l'humanité mhm. waaye l'instruction clé de la vie dëgg la macha allahu taala suñu maam seexal islaam mm-hmm. baay radiallahu anhu mm-hmm. mu ne al ilmu huwa al imam mm-hmm. mu ne dëgg-dëgg xam-xam moom mooy bunt bi kon macha allah keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril ibbil na ko bunt yi waaye mu tiit soxna Zeyna gis lu mës gis jékki-jékki gis lu ñëw rek taxaw sa kanam sol lu weex man buy man damay daw dëgg la macha allahu taala yonent ba tiit Mm-hmm. kon jibril keroog foofu la yam ak moom mm-hmm. allamal insaana maa lam yaalam mm-hmm. yonent bi tiit rek génn daw di daw di daw soxna Zeyna di daw di daw waaye nee na li ma gën a yéem dama daw dem bay waaju dugg màkka ma téen gis lu naan ma ee eh, yow Muhammad gis lu fees dell ci asamaan si laa fi fees dell ci asamaan si ne ma yow la yàlla yoon yi macha allah yonent bi mu ne may daw xeer yi naan ma yow la yàlla yónni suuf si naan ma yow la yàlla yónni asamaan si naan ma yow la yàlla yónni hmm? man Muhammad ma tiit aw ma fenn fu ma jëm aw ma benn jëmukaay ma daw dem ci sama aaw buuru këram kooku mooy Khadija kon macha allah ba mu yegsee ak tiitaangeem lan la doon wax Khadija zammiluuni zammiluuni dassiruuni dassiruuni yow Khadija nëbb ma nëbb ma yow Khadija sàng ma sàng ma Khadija newu ko ne xamoon nga ni dinga nga jommi de mm-hmm. ngay dem ci àll bi di ma fi bàyyi mm-hmm. te may sa soxna yow gisugoo dara sax mm-hmm. bu ko neexoon wax ko loolu ak bari soxna ñi teeroo noonu seeni borom kër jamono ji Khadija jéppiwu ko waaye Khadija dal gi mu dal moo tax ñu ne jigéen dafay dal dal gi dal gis borom këram jaaxle na Khadija da koo sàng nëbb ko dalal ko yonent bi ne ko Khadija man tiit naa ci sama bopp Xadija ne ko kalla mukk laa yuxzika llaahu abada yàlla du la gàcceel mukk yow sa sayidina Muhammad mel ni yonent bi ne ko ndax lan mhm. Xadija ne ko yow mu baax mii di dox mbokk di tëral nit mhm. doo nit am nga kersa bari nga jàmm ku ñu tooñ nga dimbale ko mhm. kon xam nga ne yow yàlla du la toroxal yonent bi dalaat daal di nooyewaat ndeysaan tey bu ñëwoon ci soxna soo xam ne dafa mel ni Zahra. Mm-hmm. ne ko Xadi ne ko Zahra tiit naa ci sama bopp. Mm-hmm. manaan la xamoon nga ni di nga gis ñàkkal ko kersa ñàkkal ko kersa mm-hmm. kon dafay gën a tiit dëgg la kon dafa am loo xam ne yàlla jigéen la ko jox muy dal dëgg la dal googu ndax yàlla def na ci alquran man maa jël góor ak jigéen boole leen ku góor ki bu demee liggéey ba sonn ba ñëw soxna si da ko war a dalal ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba naan bu ngeen xamoon li ma xam mhm. seeni borom kër bu ñuy liggéey jee ba wàcc mhm. di ngeen jël seeni pënd tànk di mhm. ko fompee seeni lex eh waay waay góor du ko bi nga xam ne <laughs> borom kër da koo am ci soxna dëgg la kon loolu ba tey maa ngi lay jàngal ni soxna dafay tarbiyu borom këram kon sallallahu alayhi wa sallam jommi na am na li mu gis Xadija dalal ko ne ko yow mu baax mii di teral mbokk ku ñu tooñ nga dimbale ko billaay xam nga ne yàlla du la toroxal mu ngi mel ni tey sa borom kër ñëw jaaxle mhm. macha allah euh, mu ngi mel ni tey comme monsieur Guèye rek monsieur Guèye mhm. ñoo ne ma ah soxna si mhm. tey tiit naa de mënu ko dalal Guèye ñooro ba si bàcc yow xam nga ne dara du la dal eh, yow mu baax mi damay delloo si xelam dëgg la macha allahu taala kon xelam dafay ñëwaat dëgg la kon soxna Xadija foofu la jaar ak yonent bi waaye mu nekkoon jigéen ju muus nag ndax dañ naan jigéen dafa war a am xel sa xel da nga koy Khadija gis na yonent bi di lox mm-hmm. Khadija daal dindi koolam kaalaam mm-hmm. teg ci suuf mm-hmm. gis yonent bi dal mu daal di jëlaat kol bi daal di muuru gis yonent bi di di di lox mhm. Xadija xam ne kon kii seytaane topp ko mhm. ndax bu doon seytaane la mhm. kon du demee nii dëgg la kon Xadija jigéen ju muus la kon dalal gi mu dalal yonent bi ba delloo ko ci xelam moo tax foofu suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick mu ne Xadijatu sakanat bi qalbi qaa'ilatan lam yuxzika allahu fii daarayni laa takib macha allah Cheikh Seydi Hadji Malick mu ne Xadija dafa dal ba pare dalal yonent bi sallallahu alayhi dalal xolam mhm. ne ko lam yuxzika llaahu fii daarayni mhm. yow Muhammad dalal ndax yàlla du la toroxal fii ci àdduna mhm. te du la toroxal fële ci àllaaxira la kon yow lépp luy jàmm rek yow yonent bi yow yaa ko moom kon Xadija noonu la teralee yonent bi dalal ko sol dàllam dem ci ki nga xam ne moom mooy doomu baayam macha allah tur laa xaw a fàtte ne ko ah man de sama borom kër daa jógee fee ñëw nettali ko histoire bi xew yépp ah waa ji xool ne ko ah sa boroom kër de su ma juumut mm. moom mooy yonent bu ñëw ci mujjum jamono la gaaya daan gis rek mm. moom la gis mooy jibril alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. waaye nag bés dana ñëw ñu génnee ko màkka mm-hmm. waaye aka neexoon mu fekk ma fi mm-hmm. loolu la doomu bàyyi xadija wax xadija xadija ne ko génnee màkk mu ne ko waa bés dina ñëw ñu génnee ko ndax lii mu indi amul kenn ku ko indi te sonn luñ la te lam wax dëgg la bis ñëw nañu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee ko màkka kon rôle boobu yëpp Khadija def na ko ci biir kër gi mhm. defal ko Seydina Muhammad kon moom mooy jigéen ji nga xam ne moom moo njëkk gëm mhm. ndax yonent bi keroog bañ ko xamale ne yow yaay yonent mhm. Khadija moom mooy jigéen bi njëkk a gëm ci diine l'islam kon question bi ñëwaat na bokk na ci lu tax ñu tuddee ko ummul muminin waaye mu jël alalam jël léppam financé ko ci diina l'islam ba mhm. diina ji toll fii macha allah macha allah yaa Seyda dégg naa ci sa wax aussi mhm. nga di tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko loolu dikkalee mhm. na jaaxle donc demoon na ci ñi nga xamante ne yàlla may na xam bu baax pour ñu xoolal ko tay li nga xamante ne moom la jëkkër borom këram di dund jamono ji lan la ba kooku bi mu ko gisee kooku moo ko xamal ko ni kii dafa nar a nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, parce que dañuy wax toujours dem ci ay sëriñ. Mm-hmm. ñu di la xoolal. Mm-hmm. wala ñu di la ñaanal ngay dem ñu lay ñaanal yooyu ñu ci bëri dañ naan bokkaale la. Mm-hmm. suñu mbokki ibaadu yi. yu ci bëri dañ naan dem ci sëriñ di ñaan wala kii mhm. bokkaale la mhm. te fii bu ñu ci déggee mhm. tey ñii euh, ki nga xam ne mooy euh, soxna Xadija dañ ko xamaloon avant dafa dem gëstu ñu xamal ko nitu yàlla ñi nga xam ne yàlla may na leen euh, tuuti xam-xam wala may na leen xam-xam boo xamante ne xam bu baax la donc ñoo ko xamaloon que ni Seydina Muhammad dina nekk yonent te boobu ñëwagul woon donc foofu dégg-dégg dégg-dégg aussi biñ ciy am mooy dafa mel ni diine may na la tey boo amee lu la jaaxal ci sa yaram mhm. wala nga bëgg tamit tey lu la aar tamit ba tey diine mhm. parce que comme ni ma ko waxee sànq yàlla suñ borom lan la wax nee na lépp tey loo bëgg a xam ci ci ci ci àdduna mhm. mu ngi ci sama téere alxuraan bi donc am na nit yu baax yu fi nekk yi nga xamante ni tey demee bëgg ñu ñu ñu ñu aar la wala tey nga am lenn lu la jaaxal comme ni ñu koy defee firi gént yi parfois nga gis gént bu la jaaxal mën nga dem ci nit yu baax yi tamit dafa mel ni diine euh, bañu ko pour ñu xamal la li nga gis lan la comme ça bu jaree ay euh, sarax wala bu jaree ay ñaan wala bu jaree lu mu jar ci loo xamante ne neex na yàlla suñu borom ñu def ko mm-hmm. donc li nga wax ni dafa mel ni ah, diine terewul loolu tey nga dem ci nit ñu xam lu baax tamit surtout laay wax mm-hmm. ñi nga xamante ni dañuy doxee euh, li nga xamante ni loolu la yàlla suñu borom bëgg macha allah soxna Zeyna mm-hmm. question boobu moom du ma ci xuus lu sori <laughs> ndax macha allah dañoo nekk ci jamono joo xam ne uh-huh. dafa xaw a jaxasoo dëgg la waaye nag kullil xaq walaw kaana muran dëgg la waxal dëgg doom te ne dañ lay rey parce que loolu avant l'islam la woon dëgg la avant lislaam la woon mm. xëy na daganoon na instant boobu mm-hmm. parce que yenn saa yi nga toog ne gisaane kat dafa araam pettaaw moom xam naa ne moom dafa araam mm-hmm. mais yenn saa yi nga dégg ñu ne mm-hmm. dem xool lu ji dafa araam ñu ne la Xadija ba yonent bi ñëwee dafa dem ñu wax ko lii ak lii ak lii kon dagan na am na ñu teg foofu seen xam-xam duma leen ko bañal nag dama leen koy nangul waaye man tamit dama ne loolu avant l'islam la waaye yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam wax na ni képp ku dem ci gisaane kat. Mhm. mu wax la nga dëggal. Mhm. ah yàlla mere na la de. mais yaa sayda yàlla suñu boroom nekku fi. Mhm. parce que bi mu fi nekkulee yonent bi la yónni. lépp lu mu xam. Mhm. ci yonent bi lañ ko xamee. Mhm. du dëgg yonent bi tamit ba muy dem. am na ñu mu bàyyeeg loo xamante ni. être bu ñu mënul woon yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañoo yegg ci ñoom. du dëgg tey même nit ñu baax ñi aussi am na ñu fi nekk ñoo xamante ni ah euh, tey peut-être am na lu seen maam yi seen maam yi lu mu leen bàyyil. loo xamante ni xam-xam bu baax la. parce que nit ku nekk ak li la yàlla may. donc tey ñun am na loo xam ni peut-être yàlla may ñu ko ko ñuy gis yenn yi wala ñuy xam yenn yi mais am na ci suñu yenn maam yoo xamante ne mën naa am yàlla am na lu leen may mu nekk xam-xam bu baax mm-hmm. nga xamante ñoom mën nañu gis loo xamante ci baatin mm-hmm. yow doo ko gis donc su fekkente ne loolu mën nga par exemple mën nga dem defal la ay ñaan mais lépp mu dëppoo ak diine lépp mu dëppoo ak parce que li ñuy wax moom loo xamante ni euh, dëppoowul ak diine mm-hmm. wala neexowul ak li yàlla li yàlla bëgg moom yàlla suñu borom moo lay wanaal boppam léegi-léegi mais nag nga ut ay ñaan yoo diine la mais tamit kooku nekkoon na nit ku baax boo moytuwul mhm. ba yàlla may ko tamit moom mu gis loolu gis ne kii dafa nekk dafa nar a nekk nga xamante ne moom mooy gën gi mindeef hmm? hmm. waaw si si xam nga soxna Zeyna ku nekk na def lu la doy dëgg la parce que am na ñu ne dagan na mhm. am ñu ne daganut mhm. yaa ngi euh, jamono ji ñu toll nag suñu réew mi bari na ñoo xam ne bu ñu amee lu leen jaaxal bu ñu xëyee jee faaw ñu seeti sëriñ doog a tranquille dëgg la waaye tamit li ma leen di dénk mooy lépp looy def jiitalal yàlla dëgg la yàlla mooy lépp de mm-hmm. yàlla moo fi nekk ah mm-hmm. papi mm-hmm. dégg yàlla moo fi nekk yàlla mooy lépp moo njëkk moo mujj mais nañu nangu mais moo feeñ mais nañu nangu kon lépp lay def rek <laughs> yow jiitalal borom bi allah sub xam nga tamit boo gisee tamit yenn saay ñuy tere nit sëriñ parce que bokkaale la indi soxna Zeyna parce que tey am na koo xam ne tey Euh, gëm na sëriñ bi gëm boo xam ne. Mhm. day dem ba fàtte yàlla. dëgg la boobu ëpp la yow sëriñ bi da lay jox téere nga war ko mhm. takk. Mhm. nga génn sa buntu kër ne i fàtte naa sama téere. kon yow jàppoo ne yàlla. moo la moom mais pour yow téere bi ci boppam moom moo la war a aar dëgg la kon loolu moo tax yéen yi ñu koy éviter. waaye tamit ku mu neex nga am lu la jaaxal mën nga dem ci borom xam-xam. nit ku baax waa nit ku sell ne ko ñaanal ma lii mm-hmm. ak lii ku nekk daa ak parce que da ngay gis suñu maam ñu baax ñi même bu dee ñoom maam maam maam maam maam alaaji Malick wala mu noonu mm-hmm. kay comme surtout Serigne Touba yi nga mm-hmm. xamante ne macha allah ñoom da ngay gis tey boo demee dinañ la ñaanal ñaanu baatin boo xamante ne amaana tey euh, tey loolu lam lay jariñ mhm. amaana koo xamante mën na la gën a jege mu nekk kilifa te li la lee di jariñ ñaan bee lim jariñ bee mën na la ko bën a jariñ xam nga lan moo am mhm. rek ñun Sénégal moom dañoo ëppal ci ci mhm. lépp parce que gis koo xamante ne comme ni nga mën na dem ba jàpp lépp loo xamante tey lu ko rek foog mu dem ci sëriñ pour mu xool ko loolu moom kenn waxu ko mu ngi mel ni boolu ceeb rek da gis koo xamante day lekk lekk ba fot sedd la sa xolu soxna mhm. boo xëyee na ko soxna si ñaanal ma si lépp baax jaru ngay dem ci sëriñ mhm. yow mii di soxna mhm. sa borom kër mu ngi ci kër gi de mooy sa sang de mooy sa lépp demal na ko sëriñ bi ñaanal ma wala nga sa baay ñaanal ma ñaan yooyu daal moo ëpp solo macha allahu taala ku mu neex nag nga def lu la neex mhm. ndax wanu nazilu min al quran maa huwa shifa mhm. wa rahmatan lil muminin mhm. wala yazidu zalimina illa eh, xasara macha allah yàlla moo wàccee alquran muy faj lépp macha allah ah. loo ci gëm rek loolu la lay fayal ah. macha allah xam ne ni ngay jàngale diine daf maa neex. am caaj. <laughs> mais yaa Seyda mën xam tamit tey mhm. soxna Khadija. Mhm. Euh, parce que dégg nañ. Mhm. ci histoire soxna Aïcha. dafa dafa nekkoon ku ku fiiroon. <laughs> mën nañu xam est-ce que moom ak soxna Khadija bokkoon nañu benn kër ci euh, këru Sey euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee bokkoon nañ benn kër naka lañ doon dundee ñoom ñaar. waa soxna li lay wan ni dafa mat palaasam. nekk jéeg bu fet bu fees palaasam mm-hmm. te benn jéeg mosu koo fekk si xam nga yenn saa yi nga mm-hmm. gis jigéen toog ci kër mm-hmm. mu ne man duma am wujj dëgg la fekk liggéeyu ko de fekk liggéeyu ko dëgg la xam nga góor bu la takkee indi la ci biir kër gi làmb lam doon làmb daju ko day dem uti keneen indi maa la wax loolu mais soxna Xadija dafa mat jeeg Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam da koo takk indi ko ci kër gi mm-hmm. soxna Xadija fees aawa ñaareel ñetteel ba ñeenteel mm-hmm. yonent bi talu xool kenn ndeysaan moo tax ma ne la jigéen bu nekkee ci biir kër gi. Mhm. na fexe ba fees palaas yooyu. Eh, góor léegi yii. jigéen ñi parfois dañuy def lépp. fees sax laa lay wax de mën nañu mat aawa ñaareel ñetteel. ñeenteel yow damaa xam xale yu góor yi xoolal seen seen jabar yi macha allah lépp lu ñu xalaat ne lii bu ñu ko defee seen borom kër dinañ kontaan ña mhm. cay daw. Mhm. mais gis nga góor léegi bu ñu amee lu baax boobu lañ gën a mën a wëree loo xamante ne te lañ lay indilaatal laatal kat dañuy toog naan su ma yëgoon du ma ci dugg dañuy am lu baax ba pare di wër leneen loo xam ne la ñu yor la ñu yor moo ko gën waaw am na góor ñu mel noonu mhm. waaye am na ñoo xam ne la ñu yor rek doy na leen dëgg la macha allahu taala. Mhm. am na góor ñoo xam dañuy toog ne man benn soxna laa bëgg. dëgg la yàlla may leen benn soxna boobu. Mhm. mu mat leen aawo ba ñeenteel. Mhm. fees seen place. waaye jigéen bu toog ne du ma am wujju. te yow feesoo sa place. ku góor ki làmb làmb daju. dootoo ko defati dama nga takk keneen nga indi. kon jigéen da ngay mat jigéen. da ngay fees sa place. mel ni soxna Khadija. da nga maa laaj question bu am solo. soxna Khadija sayidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam takk na ko ba soxna Khadija génn àdduna musul am wujju. moom kase moo nekkoon ci biir këram mm. feesoon palaasam mm-hmm. mat aawo buñ naan aawo nag mm-hmm. buuru këram mm-hmm. soxna Xadija moom moo tax tey ñu ne buuru këram ndeysaan yaa ngi dégg de macha allahu taala jural ko ay doomam soxna Xadija moo jural sayidina Muhammad Abdallah Qasim Umu Kalsum sama turandoo Zeynab Roqaya sama turandoo Fatima bint Muhammad macha allah kon soxna Xadija moo jural yonent bi doomam yépp ndax soxna Khadija dafa oyofoon. Mm-hmm. di tarbiyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musta bëgg yonent bi mer. Mm-hmm. yonent bi lépp lu mu bëgg soxna Xadija xam ne yonent bi bëgg na ko mm-hmm. avant mu ko koy sant day dem defal ko ko ngir jéem a dab bànneexam mm-hmm. kon borom kër euh, soxna doo toog ba sa borom kër ne la defal ma lii en tant soxna sa borom kër war ngaa xam li mu bëgg dëgg la war ngaa xam lépp loo xam ne boo ko defalee dana ko neex nga jiitu ko si dëgg la xam Seex Seydi Haaji Maalik ba mu woowee doomam di ko yëpp muy sëyi ne ko dem doom boo demee nooy def mu ne ko sama jëkkër lu ma sant ma def lu ma tere ma bàyyi Cheikh Seydi Hadji ne ko déedéet fexeel ba xam la mu bañ nga maytu ko mhm. fexeel ba xam la mu bëgg nga ko ci jiitu di ko ko defal avant mhm. mu la koy sant kon soxna day mat soxna dëgg la xam nga soxna Aïssa mhm. nee na musuma fiire soxna Khadija ni ma ko doon fiiree musuma koo fiiree samay wujj yu ma bokk kër te musuma kaa gis te bokkuñu jamono Eh? loolu <laughs> yéeme na de ci question bi nga ma laaj te moom bi muy fiir fekk na kay génn na àdduna génn na xaaju mm-hmm. ñoo fekkante mm-hmm. soxna Xadija moom rek la yonent bi amoon ci soxna jamono jooju mm-hmm. te àdduna yonent ci moom rek la yem ndax doyoon na ko ci lépp ndeysaan fépp fuñ ko woo soxna Xadija mooy sol dàllam sol yére muuru ànd ak sallallahu alayhi wa sallam soxna Xadija soxna Aïssa mu ne dama ko doon fiire te mosuma koo gis te wujj yi ma bokk kër musuma leen fiire ni ma daan fiire soxna Khadija mhm. te xamul lan la mhm. xam nga li ko waral mhm. xam nga soxna Khadija dafa am xarit buñ naan xaala dafa niroog moom voir soxna Aïssa mooy nettali de mu ne kooku soxna Khadija la woon niroog moom voir yonent bi dem na ba nga xam ne bu déggee kooku di wax rek day tëb naan xaala xaala xaala ndax lan mhm. niroo bi mu niro voix soxna Xadija nekkoon xaritam mhm. soxna Aïssa mu ne loolu dama ci doon fiir mhm. mu ne Mouhamed bu demaan baree gàtt balaa mu ñoo jox ñun waa këram xaala lay njëkk a jox ndax xarit gi mu xaritoo soxna Xadija waaye ana soxna yu mel ni soxna Xadija waaye mbaa ñu ngi fi <laughs> xoolal rek fi mu téewoon sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna Aïcha moo yeeyoon fiir nag soxna Aïcha <laughs> moom mhm. moo doon nettali loolu mhm. ba am na un mu xaw a merloo yonent bi ci mhm. loolu ne ko fu ñu toog rek nga naan Xadija Xadija Xadija xam nga soxna Aïcha dafa fiir di wax loolu sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow sax Muhammad yow tool bu ñu bay ak tool bu ñu bayut sax bu mm-hmm. buñ la doon wax booy tànn loo ciy tànn mm-hmm. xam jigéen dañoo mën wax yu sew mm-hmm. foofu li mu bëgg a wane yonent bi mu ne ko man mii nekk xale bu ndaw macha allahu taala nga takk ma ma nekk xale bu tuuti foo toog di tudd màgget goo xam ne avant ngay jot ci moom amoon na ñaari borom kër avant yow yow foo toog xadija xadija rek ba merloo yonent bi ah kon ñun fiiraange dañ koo doon de. waaw de ah ku fiiru doo dugg aljana ku ah, baax na ku bëgg sa waay ku ne da fiir. Ah, mhm. balaa ku mel ni Zeynab ñëw di ko mhm. jël. <laughs> macha allahu taala. Uh-huh. yonent bi mer ci lu mhm. Aïssa wax. ndax boo tuddaan Xadija rek. laal laal xolam ndeysaan yonent bi jug ak mer. ne ko kooku duma ko yemale kenn ci àdduna. ndeysaan mel ni soxna Aïssa def ne ko lu tax. mu ne ko kooku ba ma ñëpp weddee moo ma gëm dëgg la ba ma ñëpp toroxalee moo ma jël taf ma ci boppam ba ma ñëpp ne damaa ñàkk moo ma jox alalam jox ma lépp mhm. léppam léppam la ma jox ba mhm. pare jural ma samay doom mhm. kon kii duma ko yemale kenn ci am yaa ngi gis kon yonent bi tagg gi mu tagg ak ngor bi mu amoon tamit ak ngor gi mu amoon macha mhm. allah mhm. nit defal la lu baax ñaata tey borom kër ñooy toog seen i soxna defal leen lu baax te duñ ko wax maa la wax loolu dañ koy toog di ko xarab sax seen soxna day xëy suba ba ngoon di dab seen bànneex mhm. ku góor ki bu xasee ba dugg si kër gi fexe ba tur sa rongañ wallaahi xam nga soxna Zeyna am na loo xam dañ ko war a wax waxal xam nga góor yu mel ni sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ah. góor ñi nañu jéem a roy yonent bi mhm. sallallahu alayhi wa sallam xam nga tey da gis doom mhm. euh, bon mhm. ñu ne ndey ja la dëgg la d'accord ma de dëgg la sax yoon doom de yenn saay mu judd bon ñu ne yaayam parce que yaayam liggéeyut lu mel noonu waaye am na doom yoo xam ne ñu ngi leen di accuser ci seen yaay fekk mhm. toor bi ci seen baay dëggantaan góor ñaa ngi may déglu mhm. dafa am góor ñoo xam ne liggéeyu mhm. jigéen ñi nee naa dañ koy seere dañ koy nëbbu gis duñ ko nangoo gis seen soxna luñ leen defal duñ ko gis lu dul lan imagine soxna Zeyna ëmb ci naqar wasine ci naqar te góoru léegi ci naqar sa rongoñ di tuuru mhm. doom jooju bu juddoo bu bonee ci kan la bàyyi ja bàyyi ja te góor jigéenu léegi loolu la ñuy dund ëmbee naqar wasinee naqar di nàmpalee naqar yow boo xëyee di door di saaga bu gudd jotee nga bëgg a neexal ban mhm. jigéen moo la koy nangu kenn du la ko nangul mhm. soxna danga nga koy yërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yërëmoon soxna Xadija nekk ak moom ci nekkin bu rafet tax na nag lu Xadija def mu gis ko kon góor ñi ibbi leen seen i bët seen i soxna luñ def na ñu galant quoi tey da gis góor ñoo xam ne yi nekk ak seeni soxna mhm. mu liggéeyal leen mhm. tarbiyu leen mhm. bu génnee àdduna ñu fàtte ko maa te yonent bi fàttewu ko ndax soxna Aïssa dafa taxaw ne ko lan moo tax foo toog naan Khadija mu ne ko du ma ko yemale kenn nag te moom ma leen gënal ah mu ne ko lu tax mu ne ko ndax ba ma ñëpp weddee moo ma gëm jox ma alalam jox ma léppam suturaal ma dalal ma ba tey alquran mën na wàcc ci man ba ma tranquille lépp soxna Khadija moo ci jàpp jural ma Fatima mhm. sama turandoo mhm. jural ma Zeynab mhm. jural ma Roqeya jural ma Ummu Kalsum jural ma Abdallah jural ma Qaasim kon kii du ma ko yemale kenn wallahi macha allah macha Seyda li ngay wax am na solo lool lool waaye balaa mu doon gën a am solo genre <laughs> yaay yi ñu dégg ko te jëfe ko tamit parce que wax nga dëgg tey yaaya daa Seydina Muhammad tey <laughs> uh-huh. dañoo jàppale dafa jàppale woon ki nga xamante ni moom mooy soxnaam mooy li ma wax sànq jigéen góor moo ko war a jàppale yow mi nga xamante ni yow yaay borom këram hmm. te boo ko jàppalee rek mu dem mais boo ko koñewee wala nga def ko yenni rek jigéen dafa dafa dafa gaaw man a stressé wu te boo stressé woo rek dootul xamati lan lay def dafay jaxasoo jigéen ñaa ngi seen biir kër yaa sayda wallahi di muñ di muñ laa la maa la wax loolu uh-huh. tëdd seen biir néeg di uh-huh. jooy bu ñu génnee kenn du leen xamal dara uh-huh. te kenn tegu leen ko kudul seen i borom kër ñu ngi toog di muñ seen borom kër yi dañ ciy gis jigéen ñoo xamante ne tey man am na kaa bu ma ci xam boo xam ne benn xale bu jigéen boo xam ne tey jëkkëram daf ko wutal benn studio dugal ko foofu mais terewul mu ngi génn dem di doxaane doxaan doxaan rek la tudd amul beneen tur bu dul doxaan du dëgg <laughs> donc mu ngi génn dem ci biti di doxaane mu dem di seeti coroom jarul rafetal doxaat la tudd donc mu génn dem di doxaat fekk avant loolu daf ko takkoon ñu am doom divorcé nañ parce que xale bu góor bi yaayam tamit bëggul woon bu jigéen bi la bëgg te xale bu jigéen bi aussi xale bu góor bi la bëggoon du dëgg donc xale bu góor xale bu jigéen bi ñëw di di muñ ak lépp tamit lu ko goro bi doon def moom mu ngi doon muñ parce que dafa bëgg jëkkëram et mu ngi doon góorgóorlu aussi donc yàlla dogal tamit divorce am ci diggante kër baayam mhm. et bi mu ñibbee mhm. xale bu góor bi dem na àndalaat ak yeneen jigéen mhm. ba biiral ci ñaar ñaari xale yu jigéen laa la wax de wëlbatikuwaat dem di bëggaat xale bu jigéen bi te na ko bëgg na koo sëyal ñaan na yàlla am dafa accepté mu ne parce que man dama la bëgg oh. te su ma sañoon yow yaay nekk samay bàyyi doom su ma sañoon tamit yow yaay nekk góor bi may suul du dëgg donc mu ta xale bu jigéen bi accepté waat mu dem ak sëy sëy xale bu góor bi xale bu góor bi utal ko benn studio. Mhm. mais terewul dafa génn dem di doxaane. mën na doxaan amul problème de parce que góor ñi kenn kenn mun leen a téye mais bu ci yemoon uh-huh. xam nga nu mu def mhm. tey jabaram mu ngi ciy studio am de mhm. di ko di ko muñal benn mère la ko la ko falalal xale bu jigéen bi bëgg na ko moo tax accepté accepté na mère yooyu am na jigéen ñoo xamante ne boo leen tegalee mère dañ naan la xalaatuma xalaatuma tëdd ci mère gàddu foog nga utal ma lal foog nga defal ma lii foog nga defal ma laa mais jigéen bu bëgg góor tamit du ko sonal parce que xam nga li nga xamante ni moom la sa jëkkër am ak li nga xamante ne amu ko yaa ngi dégg xale bu jigéen ba nekk ci biir studio ba di sëy di muñ nekk ci mer gàddu un an amul lal laajul jëkkër ji lal mais xale bu góor bi naka la def génn ci biti doxaan de teg ci di yàq deru xale bu jigéen bi bëri na ci ne man xale yu jigéen yi xaw ma lu ñu bëgg sama jabar a ngi nii dama ko wutal appartement meublé lépp lu war a nekk ci kër defal naa ko mais respecté wu ma métti na yaa ngi dégg. Mhm. teg ci di yàq deru aussi ki nga xamante ne mooy gorom di yaay xale bu jigéen bi donc ak yeneen yoo xamante ne bëgguma nekk fii di ko détaillé. Mhm. tey am na ci loo xamante ne lu garaaw loo loo xamante ne moo tax tey xale bu jigéen ba génn ci kër ga parce que am na loo xamante ne nit ku dem na man nee naa ko mhm. boo naree boo naree boo nara naraat naraatee delluwaat ci xale bu góor ba mhm. man Zeyna maa ko dul nangu parce que xamul tax mhm. gor gor nga mën a àndal munoo nekk gor parce que nit ku nekk da nga am say nawle am ñu la bëgg am ñu la bañ donc munoo ànd jigéen ñu bëri tey ñu ngi ànd ak seen seen i jëkkër et góor ñi ñooy tax kenn respecté wul seen i jabar parce que ñooy génn di yàq seen der ñooy génn di leen manquer de respect ñooy ñooy ñooy comportement ak ñoo xamante du leen jox cër mm-hmm. pourtant xale bu baa ngi muñ loo xamante ne am na ñeneen ñoo xam ne tey buñ ko ko defoon xalaatuñ la xalaatuñ leen a muñal loolu kon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jàppale woon soxna Xadija ba tey mu am li mu am waaye ba mu tollu tey fi mu toll kon nag ñu mbokku ji euh, góor ñi mhm. suñu frères yi yéen ñi nga xam ne yéen suñu xarit mhm. yéen suñu papa mhm. yéen suñu mag jàppale leen ñu waay <laughs> macha allahu taala euh, li yonent bi waxoon rek istawsu bin nisaay xayran maa ngi leen di dénk ci jigéen ñi yiw ngeen yor leen ci yor bu rafet xam nga ñun bëgg nañoo sëy lool ndax ki bàyyi kër baay mhm. bàyyi kër ndey juddu fa mu war a juddoo mhm. sa baay tette la sa yaay tete la yar la fa mu la war a yaree benn waay jóge fee ne la coppet yóbbu mhm. ay waay boo bëggutoon a sëy doo fa dem wallaay boo bëggul woon a doo fa dem waaye ñun tamit matuñ ndax bu ñu matoon kenn duñu muur guddi kon bëccëg la ñuy muur kon ñàkk a mat moo tax ñu muur ñu ci guddi muur ñu ci lëndam ne la am mu ngi nii suturaal ko jàppale ko boo ko jàppalee yàlla jàppale la waaye boo ko jàppalewul rek say affaire léppay dëgër mhm. bëri na góor ñoo xam ne tey fu ñu jublu rek seen mhm. buntu tëju mhm. fekk dara tegul leen ko lu dul li ñuy tàngal seen xol yi soxna jigéen kenn du tàngal xolam jigéen ji nga xam ne moom la yàlla ne alors jëlal ñu jël ki ci ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum aleykum salaam wa soxna si ñu ngi lay ziar maa ngi lay di kontaan ci émission bi macha allah yaay kan ak fooy wootee maa ngi tudd Mame Lori di woote di Nouakchott. macha allah Nouakchott. Nouakchott Mauritanie. ah Mauritanie ah maa ngi leen di ziar. waaw kontaan ci rek ak waxtaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf waaye. kontaan naa maa ngi nuyu Soxna Sow Sowet. Soxna ñu ngi lay fay bu baax a baax soxna si. macha allah léegi lan nga ñu mën a wax tey ci thème bi ñuy waxtaanee ci Soxna Khadija. ah wallaay macha allah li nga si wax moom yëpp dëgg la. Mhm. man ngaa léegi laa ko jàpp. Mhm. moo tax sama tardé ma xawoon tardé tuuti. mais ah. macha allah li jot dégg moom maa ngi macha allah macha allah kontaan nañ kon ñu ngi lay jaajëfal. waaw yal na yàlla yokk kontaan te ngeen jàpp nag ñu ñaanal bu baax. incha allah soxna si ba am nga góor gu góor gu lay jàppale bu baax a baax koo xam ne mu ngi xaw a rey ci Seydina Muhammad <laughs> sallallahu alayhi wa sallam baa sa góor baax na rek mu ngi lay jàppale. <laughs> macha allah <laughs> kon xam naa dem na. jërëjëf jërëjëf waay. jërëjëf waaw merci jërëjëf. ñu ngi lay ziar di ziar waa Mauritanie ñëpp. samay soppe rek ñoo fa nekk mhm. ndeysaan bëgg Fatima Zahra mhm. di ma woo à chaque fois ndeysaan maa ngi jaajëfal waa Nouakchott ñëpp di leen nuyu di leen ziar. waa Gambia ñëpp fépp soppe mën a nekk rek mhm. ñu ngi leen nuyu di la ziar mhm. Mhm. foofu dama fay jaar nuyu EVP bu baax a baax borom énergie bu bëri bi di ko wax est-ce que <laughs> donc yaa Seyda li ngay wax am na solo mais amaat naa beneen question mooy euh, soxna Khadija ba tey est-ce que mën nañu xam ban relation aussi la amoon ak ay xaritu euh, ki nga xamante ne mooy gën gi mbindeef bi Seydina Muhammad macha allahu taala xam nga sëy mhm. ñu naan kenn du bëgg ginaar bañ ay cuujam dëgg la tey boo ne da nga fas yéene dugg ci famille di sëy mhm. da ngay boole ñëpp bëgg mhm. soxna Xadija dafa jëloon képp koo xamante ne mës nga nàmpal sallallahu alayhi teral na la képp ku doon xaritoog moom teral na la même jullit ñi buñ daan am problème mu xaalis soxna Xadija moo daan yëkkati alalam jox leen yéeféer yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon biir Màkka am na loo xam ne buñ ko naroon a def yonent bi sax mhm. dañ naa rus nañ Khadija moo tax keroog ba Khadija génnee àdduna mhm. ndax soxna Khadija ak Abi Taalib mhm. am na ñu ne une semaine lañ rawantee ñoom ñaar ñu ne at moomu moom lañ tuddee atum njàqare ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax lépp lu ko waay waroon a def mhm. rus abi taalib abi taalib dem na mhm. lépp lu ko waay waroon a def mhm. rus ci xadija xadija dem na ndax xadija comportement bi nga xam ne mu ngi ko doon comporté woo soxna yonent bi euh, xaritu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon biir màkka dafa nekkoon ak ñoom nekkin bu rafet nekkoon jigéen bu yaatu nekkoon ko yaatale macha allah képp ku ñëw rek soxna ngay ñëw foofu de ah? ci soxna Khadija ma ne côté jóge ngay ñëw foofu ci côté Khadija da yaatalal soxna Khadija <laughs> macha allah dafa yaatu ba pare yaatale mm-hmm. bëgg ñëpp mm-hmm. uuf ñëpp képp koo xamante ne yaa xam bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Khadija dalaa taf ci boppam mm-hmm. bu toggee doy doy mm-hmm. képp ku fa dugg ne soxna Khadija mm-hmm. ana sama añ mën a la mu ngi nii nekkoon jigéen joo xam ne macha allah mën a joxe ñam mën a joxe alalam te bu koy joxe ci xol bu rafet la koy joxe ba pare tarbiyu sallallahu alayhi wa sallam tarbiyu képp kuy xaritam soxna Khadija daal amul morom soxna Zeyna ndax macha allahu taala xam nga soxna Xadija musul wan ni yonent bi maa la ëppale ci biir kër gi dëgg la musu ko koo wan mm-hmm. nee naa la lépp la jëloon jox ko ko mm-hmm. xam nga yonent bi sallallahu alayhi mu ngi naan bu doon damay dégal mm-hmm. nit di sujootal nitam ñu sujootal soxna Xadija <laughs> uh-huh. damay digal uh-huh. nit di sujjootal keneen ku dul nitam xam nga uh-huh. sujjoot yàlla rek moo ko moom ndax wax jooj dafa rëy mu ne kon jigéen laay digal mu sujjootal borom këram Ah. kon ba tey l'islam mu lay jàngal ni ah. jigéen noo mënti mel Uh-huh. daraja boo mënti am uh-huh. góor mooy sa kilifa dëgg la kon soxna Xadija oyofam uh-huh. moo ko may tey mu tarbi yonent bi sallallahu alayhi wa yu yonent bi am maqaama bu kawe ci moom waaye nag du ko daan not du ko daan tongtangal couple boobu daal tey képp ku bëgg a jël exemple bu baax jëlal ci couple boobu xam nga tey borom kër nag dafa am àq bu rëy ci soxnaam dëgg la góor dafa am àq bu rëy ki nga xam ne tey moom moo yor sa caabi aljanna xam nga tey jigéen bu faatoo mm-hmm. boroom këram gërëm ko yonent bi mu ne sa aljana taxaw na nit ñi ñoo fay toog di la jooy mm-hmm. ay yow njabootam jim fi bàyyi ay yow soxnaam ay yow mm-hmm. boroom këram gi mu fi bàyyi fekk yow yàlla mu ngi lay wax xoolal ci aljana yi ban aljana nga bëgg a dugg moo tax mu ne bu doon damay digle nit di sujjootal keneen ku dul moroomu nitam xam nga histoire boobu lu tax yonent bi wax ko dafa mus a toog benn waaye ñëw ne ko bu dee yàlla la yónnee waxal garab gee ñëw wuy si saboote yonent bi wax garab gi ñëw wuy si ko garab gi jógee fa mu nekk mhm. allahu akbar mhm. ñëw ba fi yonent bi nekk mhm. yonent bi ne ko dellu garab bi dellu palaas waa ji bëgg a sujjóot yonent bi ne ko déedéet bu doon damay digal nit di sujjóotal keneen ku dul yàlla kon jigéen lay digal mu sujjóotal borom këram ngir àq gi nga xam ne borom këram borom kër am na ko ci soxnaam kon tamit ñoom ñooy suñu borom kër ñoom ñooy suñu kilifa mhm. ñoom ñooy suñu papa mhm. ndax keroog ba ñuy jógee ci loxo waajur ci mhm. seen loxo lañ daj kon kooku tamit yow mii jigéen faaw nga mel ni soxna Xadija faw nga oyof am na jigéen ñoo xam ne jamono ji dañoo naqaree yor nag ndax lan seen am am ndax seen am na jigéen ñoo xam ne am nañ dem na ba nga xam ne góor ñi dañ naan jigéen ju am sax day nee day naqaree yor am na ñoo xam ne am nañ mel nañ ni soxna Khadija. Mhm. duñ la wan ne maa la ëppale. Mhm. waaye am na soxna yoo xam ne am nañ. Mhm. ba nga xam ne dañuy bëgg a not seen borom kër toog seen kaw wan na la kon man maa am lu ma wax mooy am sama biir kër. fekk juum nga. jigéen noo mënti mel. maqaama boo mënti am. yàlla teral na la de. yonent bi teral na la. macha allah. waaye góor mooy sa kilifa. dëgg la. kon toujours rek jox ko kilifteef bi moom. dafa am loo xam ne boo ko bëggee xëccoog nit ki da nga koy sonal. jigéen. dafa am loo xam ne góor moo ko moom ci biir këram soo ko bëggee xëccoog moom da nga koy sonal mooy kilifteef mhm. jox ko ko rek yow mi jigéen soo mhm. bëggee am jàmm mhm. waaye tamit yow mi góor nga mel ni sallallahu alayhi wa sallam nga jël kilifteef boobu bu ko diisal waaye na ko oyofal sa soxna mënoo ko jaay lu ko saf yow miy soxna tamit mënoo jaay sa borom kër lu ko saf ndax hunna la lakum wa antum libaasun lahunna macha allah xam naa taal bi ci boppam moom moo ñu xoj mm. mais yaa seeda donc ñun ñun luñ li ñu bëgg rek mooy parce que wax nga fi li nga xamante ne macha allah tey am na lu bare baree bari kon loo xamante ni war nañ ko jàng ci ki nga xamante ni mooy euh, soxna Khadija surtout ñun jigéen ñi mm. mais tey boo amoon li nga xamante ni moom nga ñuy conseillé ñun jigéen ñi mm-hmm. surtout tamit jigéen ñi nga xamante ni tey ñu ngi seen biir kër seen biir néegu sëy tey lan nga leen di wax yaa seeda macha allah soxna Zeyna jigéen ñi li ma leen wax rek mooy thème bi duñ ko fi yamale mm-hmm. dañ koy continuer beneen lëndi mhm. ndax dafa yaatu mhm. dafa ëmb ci xuquuqu zawja ala zawja mhm. àq bi nga xam ne góor am na ko ci soxnaam àq bi nga xam ne soxna am na ko ci borom kër kon du yam fii yow miy jigéen toog sa biir néegu sëy tey boo ma dégloo ci lu ñu wax tey ci Khadija rek doy na exemple bu mat macha allah wax dëgg yàlla boo nekkoon ci leneen jëlal ci soxna Khadija ci dund bi nga xam ne mu ngi ko dund dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dal ci maanu ci teey mm-hmm. ci yaatu waaye ci yaatale mm-hmm. ndax jigéen da ngay nangoo doon yaay mm-hmm. macha allah uuf ñëpp waaye yow mi góor royal ci sayidina muhammad mi nga xam ne moom la yàlla joxoñ mu ne walakum fi rasulillahi uswatul xasana nga xam ne jigéen nga yor jigéen dañ koy muñal jigéen da ngay dab bànnee xam boo bëggee bunt boo fëgg mu ibbeeku ngeen dalal ñu xam ne ñun ñooy seen yaay macha allah kon soxna Zeyna émission bii di ñëw dañ koy eggali de. Mhm. ndax du yem fii. Mhm. dañ lay bàyyi nga tàggatoo. Mhm. macha allah bu ko defee ñu tëj. d'accord yaa Seyda man li mm-hmm. may wax rek mooy mm-hmm. euh, euh, xale yu góor yi nañu <laughs> nañu jàppale jigéen ñi mm-hmm. ah nañ leen taxaw suturaal leen parce que tamit nit ki nit ki nga xamante ne tey jëlee nga ko ci ay waajuram te mu leer na ne tey bi ngay ñëw di ko bëgg si am na sa fukki moroom mu góor yoo xamante ne tey bëggoon nañ mais mu bàyyi leen ñoom ñëpp ne tey yow la bëgg nga nekk nga xamante ne tey yow yaa koy denc bis buy génn àdduna donc nañu fàttali ko waat bi ñu koy bi ñuy bëgg xale bu xale bu jigéen bi ci nan ngeen ko fekkee woon ban am anam ngeen ko fekkee woon ñaata góor ñoo nekkoon ci ginnaawam donc ñu jàppalante parce que àdduna jàppalante la rek et may wax sama mbokk xale yu jigéen ñi aussi nañu continuer di muñ rek et lépp lu ñuy def aussi nañ ko def te yàlla rek tax donc may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant sama yaay mhm. bu baax a baax a baax soxna Aminata Lo mhm. nit gënu ko waaw macha allah soxna Aminata Lo bete bete boobu mhm. maa ngi lay nuyu bu baax mhm. di la ziyaar di ñaan yàlla bàyyi la fi gudd fan lool lool lool ak wér-gu-yaram ak sama ñeneen euh, soxna papa yëpp donc ba ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy seeni njaboot ñu mën leen a teral et di jaale ki nga xamante ni tamit sama mag la muy sëñ aboo Mbacke donc di doom ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma ku mu nekk koo xamante ni tey maamam bi jur yaayam muy soxna Assulo ak sama maam bu góor bi Abdou Khadir Lo bi jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay donc ñu koy jaale ñëpp ma lay ma koy jaalee soxna May Darma mi nga xam ne mooy magam mhm. di ko jaale aussi May Taïf di ko jaale bépp famille bi nga xamante ni rek famille Serigne Touba nga mhm. donc di di di leen bégee di kontaan ci yéen di leen joxaat dig daje leen euh, di incha allah bu dee dañu continuer euh, soxna Khadija ñu continuer ko mhm. wala tamit ñu jëlaat beneen soxna rek ñu fas yéene ja ak yéen <laughs> maman yi nga xamante su suñuy waay lañ di sant bu baax maman Guèye Siri suñu yaay suñu xarit boobu nga xam ne solol nañ ko wax dëgg yàlla di sant ñi ci suuf waa régie ah Augustin bëggee naa la lu baree bare Papilo sant naa la gërëm naa la <laughs> di sant euh, tonton Seydou aussi kon ñu jaajëfal ñëpp mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan mhm. ak suñu yi macha allah sonn si ñoo yaya macha allah. <laughs> iso <laughs> iso ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar waaye rawatina di nuyu waa Kër Mbay faal ñëpp mm-hmm. macha allah sama soppe yi fa nekk temps Binta Ndiaye maa ngi lay ziar sama yaay ju baax jooju bëgg yonent bi Tafa Niass yéen ñëpp maa ngi leen di képp kuy soppe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu caatu yaayam Binta Ba sa soppe la mooy sama caatu yaay bëgg la lool du rate émission bi macha allah <laughs> caatu yaayam maa ngi lay ziar bu baax a baax mm. nuyu waa Kër Mbay Fall ñëpp ñëpp bàyyi ma kenn mm. sama tataa xaar mbaay yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax ni waaye nag Zeyna ak ki ma jox kol bi mm-hmm. macha allah bitugu kol Kër Mbay Fall mm-hmm. euh, bàcc kol mm-hmm. macha allah nekk ca tali karoba di jaay ay col yu rafet mhm. ay jilbaab ay robb ibaadu lépp loo bëgg ci muuru rek macha allah eh, boo demee bàcc nee na da lay muur ba nga rafet kon yow mi am mariage am ngénte am xew <laughs> bëgg a muuru ñëwal kër Mbay Faal tali karo bi katu bàcc col macha mhm. allah mu jox la col bu rafet kon tey moom moo jaar ci col bi numéro téléphone am di 76 680 689 40 50 689 40 50 macha allah fàttali nga ma ki ci eh. robe bi man muy faatu Gueye ñaw nga xamante ni ah yu eh. naay si rek lay def macha allah ah donc bépp ibaadu bi nga xamante ne bëgg na lu am classe mm-hmm. ah euh, bëgg na lu rafet lu lu lu lu loo xamante ne fu nekk mën na mën mën na ko fa génne mm-hmm. na dem ci faatu Fatou Gueye mm-hmm. borom Najmi Couture ñaw mu ñawal la lu amul fenn ah, ñaw bi moom rafet na moom macha allah kooku rek yaa maa la njëkk a lalal maa la njëkk a lalal kon ilaa maratil uxra wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu assalaamu aleyka ya rasuul